dinañu ñëw ci sport interscolaire ndax am na quelques rendez-vous yoo xamante ne dinañ si ñëwaat ak Babou Ndour ak ki nga xamante ne moom mooy Bekay Cissé di ndaw la ñu toggal euh, fële ca Kolda tey li mooy sommaire bi bu ko defee ñu dugg ci développement bi ànd ci ak coach euh, Dame Diouf euh, moom xam ngeen ko doon na tàggat équipe nationale A nekkoon na aussi adjoint Abdourahmane Ndiaye Adidas jamono yi ñuy àddu ngeen di teewlu moom moo nekk ci banc wu bu Dakar ñu amaan mbégte yaa ko contenté dalalaat la fi ci plateau bi coach maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi aussi nga nuyu ak téléspectateurs yi maa ngi lay fay maa ngi kontaan di ñëwaat fii de sa seen plateau. Mm-hmm. di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. Euh, vraiment c'est un plaisir revenir tout le wax ci li nga xam ne mooy suñu passion muy basketball euh, vraiment di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi Lamine ak euh, coach. Mm-hmm. vraiment. kontaan naa ci daje bi merci beaucoup merci beaucoup coach ñu ngi mi ngi janook aussi ak beneen coach moom on présente plus il fait partie des consultants de cette émission sport sur 7 coach Pape Moussa maa ngi lay nuyu de la dalal jàmm sa plateau. Adja maa ngi lay fay di am di leen jox seen wàccuwaay wala seen wéeguwaay bu ngeen ci bëgg rek mu nekk euh, honneur ak plaisir toujours di partager ak yow plateau bi yàgg na du tey. Mm. mais respect à ñi ma bokkool plateau aussi de grand monsieur parce que boroom xam-xam boo toogee ñoom fierté la c'est pas donné à tout le monde di tase ñu mel nii tout le temps di bokk ñoom plateau di tase international bu mel nii grand Lamine ak euh, Grégoire ñu ñëpp nangul ko xam-xam macha allah ci liggéey bi ak le ci jouf vraiment di la remercier encore bu baax du euh, di leen wax mais respects les plus chaleureux. Merci beaucoup coach. Alors nous sommes avec euh, l'autre consultant de Semac Sport à chaque fois bu événement bu mag aussi amee daf ñuy accompagner muy Lamine Mboup ancien international sénégalais Lamine maa ngi lay dalal sa plateau. Bonsoir Ada. Merci pour l'invitation di nuyu les téléspectateurs di nuyu Grégoire l'international Euh, bi ma jàkkaarloo di nuyu Pape Moussa le grand coach ma c'est la deuxième fois que je partage un plateau avec lui et c'est extraordinaire quand on l'écoute on a envie de faire du sport avant euh, merci beaucoup Pape ah di dalal suma partenaire de la Jeanne d'Arc di ko féliciter c'est di ko féliciter pour la finale de la du championnat du championnat euh, di ko ñaanal yàlla may ko ndam. d'avoir un travail extraordinaire. à la parce que c'est c'est c'est son métier. oui oui euh, quand on quand on connaît son métier et qu'on vous laisse travailler vous y arrivez toujours. Mm. donc euh, merci Pape pour cette finale et di la ñaanal yàlla mu gunge la ba nga am ndam incha allah Adja merci encore. jërëjëf Lamine bu ko defee Greg ñu daal di dugg ci sunu premier sujet mooy encore cette déroute des Lions des Lions plutôt fële. ca euh, Kigali cette fois-ci c'était face au au Mali c'était tout à l'heure waajaa muy nag une lourde défaite boo xamante ne tey dafa ñëw sanctionné waat beneen carton boo xam ne tey Lyon jot nañu ko jël seconde boo xam ne euh, ñu ngi koy enregistré tey ci Stafford Barskela nga xam ne nag moom am na ginnaaw nag revers bi nga xam ne démb am nañu ko ci kanam Ouganda 85 à 83 kon tey équipe nationale du Sénégal daal di tamit nërmeeluwaat ci nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu ne nag une nation boo xam ne c'est une nation voisine nekkoon tey un derby de la sous-région Sénégal dal di koy pertati ak 72 yoo xam ne rek jot na ko constaté tey muy nag une seconde défaite boo xamante ne ni sàmmoon que le chemin vers le sommet nag tey dina nekk loo xamante ne lu accidenté lay doon million alors 49 à 72 c'était tout à l'heure euh, Nico Grégoire waxee hier aussi euh, se sont inclinés face à l'Ouganda 85 83 waaye dañuy préciser aussi que l'aventure ne s'arrête pas ce soir pour les Lions dinañ dem disputer barrage yi mais Greg ma bàyyi la ak coach waaw dire que euh, actuellement ce sont euh, des moom la ñuy waxtaanee ci wàllu basketball alors mm. le premier match coach nous avons pris tey trois cartons fleuve yoo xam ne tey euh, face à l'Ouganda deuxième carton 18 17 lañ jël 22 18 ci troisième carton 28 à 27 ci quatrième carton bi tey aussi buñ koy xayma de nañ benn 15 12 26 8 ak 20 13 ce qui le Sénégal démarre bien mais chaque fois on fini mal qu'est-ce qui se passe. bon comme je problème de, de préparation, euh, manque de match de préparation. Euh, et ça, ça paye cash au, niveau. boo xoolee ñaari match la ñu mooy bi ñu demee Rwanda. sur place sur place ñu mhm. joué ak euh, Congo ak beneen équipe bi kan la ci soxati. le va ça va nous revenir. Congo mooy dernier bi. oui. ak Mozambique. Mozambique moo ñu gagné un point. Euh, ñu door Congo 18 points quelque chose comme ça mhm. et euh, équipe la boo xam ne aussi c'est c'est une équipe euh, aussi en construction boo xoolee anciennes yi ñu fa nekk Aya Oumou Khayri Yacine ak Fadien on a quand ancienne ñu encadré seen ay rakk mhm. donc ñun ñi sax gisuñu équipe bi mu joué fii Dakar avant muy dem donc on on, on on attendait la Coupe d'Afrique pour mën a gis euh, ban euh, nan la équipe bi taxawee ak ak yooyu yëpp quoi waaw donc boo xoolee donc euh, équipe bi des na des des dafa dafa des des bi mooy préparation bi peut-être ci premier tour bi lañ koy continuer ci premier tour bi lañ ko doon continuer certes premier tour bi enjeu bi moo doon jël jël premier nga xam ne da ngay noppalu ko dem qualifier quart de directement Euh, mais huitième de finale ngay mujj obligé dem waaw donc euh, maintenant bi gis na équipe bi gis na joueurs yi ku nekk tourné na xool na euh, essayé na ay défense et tout ça donc peut-être mën nañu concéder concéder que ne équipe bi pareegul pour man équipe bi pareegul mais tey est que bu ma déggee nga wax le mot reconstruction quelque part dans ma tête ça pose problème quoi parce que à ce niveau là. Mm-hmm. ñu am autant de temps pour préparer une compétition nga ñëw ba fii calendrier bi xaw a chamboulé pourtant au Sénégal il y a des équipes yu am niveau yoo xam ne mënoon nañ ñu dimbali dans la préparation. on l'a mm-hmm. pas fait age euh, bi nga xam ne nos joueuses jot nañu ko am. dafa mm-hmm. feeñ carrément ci biir tournoi bi ce qui montre que nu physiquement quelque part dañuy bàyyi à chaque fois donc basket yëfu xale la. donc à chaque fois ci fin quart-temps dañuy imposer tey un duel physique boo xam ne même dans les lancers francs ñun suñu adresse dañ koy perdre hmm. donc reconstruction bi quelque part man ça ça me ça me pose problème daal. reconstruction bi mooy que dafa bëri ay nouvelles têtes loolu moom c'est sûr maintenant boo xoolee par rapport ak premier match bi dans les options de jeu mooy que le Sénégal a joué un basket euh, écarté ou tu voyais que les cinq sont sont d'or comme ni ñu koy waxee five out pour mais five out boo koy def c'est pour jouer dugg en percussion dugg ci biir euh, provoquer ay faute wala kii mais Sénégal amul euh, amul woon jeu intérieur démb donc amuñu benn pivot point de fixation à l'intérieur donc peut-être option la mais boo xoolee on a même abusé sur les tirs à trois points donc c'était un jeu carrément périphérique où on a fait quinze sur cinquante à trois points le nombre de tirs tentés à trois points dépasse largement le nombre de tirs tentés à deux points. On a tenté 22 tirs à deux points. Ça, c'est... Après, bon, tey on a un peu rectifié, mais boo xoolee même chose encore. On a beaucoup plus misé euh, sur l'option de tirer carrément à l'extérieur. Certes, on a des jours à droite, mais on n'a pas pris le temps de tourner la balle, de de de fatiguer l'adversaire, de provoquer l'adversaire sur des fautes. donc façon option de jeu boobu je pense que bu ñu xoolaatee vidéo yi sur les deux premiers matchs euh, dinañu tirer la bonne leçon avant que ñuy dem ci phase fatidique bi nga xam ne win ou go home la donc c'est hyper important tey boo xoolee Mali Mali dañu ñëw yóbbu bal bi à l'intérieur mm-hmm. bal bi dañuy ñëw jox ko Koulibaly yi mala ñu jox ko si Koné elle nous a fait mal elle a fait vingt et quelques points donc option yi pour man le Mali a drivé beaucoup beaucoup de jeux de pénétration beaucoup de relance sur les contre et nous sommes dominés au rebond jël bal bi engagé vite et le basket moderne maintenant c'est comme c'est comme ça Ouganda dem boo xoolee elles encaissent remise rapide elles nous prennent à défaut balaa ñëw kii ñu ñu réagir rapidement saa ñu leen dugalee ñun balaa ñu kii ñoom ñu dugalaat ñu. alors ma coach sànq dama ko wax à l'entame de mes propos la préparation dama si dellu si waat mm. une équipe bu jël quatre-vingt-cinq points mm. face à l'Ouganda face au Mali soixante-douze points. dafa am lu mu lu mu montré maintenant et c'est un regroupement externe interne ba balaa ñuy dem fi nga xamante ne moom mooy Kigali ci wàllu préparation boobu fan la am li nga xamante ne moom mooy fayt balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy confrontation yi parce que waxoon naa ko fii une équipe bu dem ci une coupe d'Afrique où les douze meilleures équipes africaines ñoo fay daje joué woo fii confronté woo fii pour que euh, ki nga xamante ni moom mooy coach bi mu am une idée des joueuses système bi mu bi nga élaboré boobu ça pose problème mais ba ba ba d' abord nañ nañ teg loxo ci li nga xam ne moom mooy préparation bi lan moo ci and am am rëq-rëq. xam nga préparation deux phases dafa am une première phase boo xam ne tu reviens sur la préparation physique sur l' organisation tactique mettre tes systèmes en place et tout ça soo paree phase boobu. da war a dem ci jouer ay match pour mën a xool yan combinaison ngay def ñan ngay boole ci terrain bi yan système ñoo gën a payant ak yi kii ñan ñoo ëpp rendement loolu loolu dafa déterminant malheureusement nous on a on a comme ni ma koy waxee on a on ne finance pas cette cette partie là on ne finance pas on ne fait que de l'événementiel à deux dix jours ñu dugal équipe de regroupement non fekk raté dañ li li li ëpp solo on a raté la phase où euh, des championnats d'Europe où les équipes européennes cherchaient des matchs on devait le faire on était inscrit ci benn tournoi bu doon bu doon xew Chine euh, par euh, Covid bi mu tax ñu yóbbu ko États-Unis ñu dem ba dernier moment ñu décommandé ko donc euh, ça dafay jouer donc pour alors ci wàllu préparation bi c'est-à-dire madama interviewé ku ci mel ne Madiène Fall muy coach adjoint assistant mu ne préparation physique bi travailler nañ préparation physique bi bien avant sax ñuy génn ci li nga xamante ne moom mooy période tabaski bi léegi les fi étaient au top parce que ñoom techniciens yi xam nga ñoom ñoo xam nu on pose des questions les filles étaient au top léegi dañuy jàll ci beneen phase bi te filles qui sont au top naka la ñu mun a gisee li nga xamante ne moom mooy cette phase ci comportement parce que seen premier du metti mais bu ñu commencé dugg ci deuxième quart temps bi troisième bi quatrième bi ñu commencé ñu commencé lang donc il y a problème. problème bi c'est que ñi fa nekk sur place ñoom rek ñoo la mën a expliquer parce que même ñun daf ñuy dala tu joues un match tu reconnais pas ton équipe mais y a un feedback moi je pose les questions aux joueurs qu'est-ce passe wax leen ma lan ngeen sentir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a bon di gis benn joueur mu ne la non coach vraiment honnêtement suñu échauffement baaxul comprendre donc c'est c'est des c'est des c'est des c'est des choses yoo xam ne entraîneur il faut nga vigilant ci loolu waaw mais euh, maa ngi ko doon wax équipe bi boo xoolee tey amuñu vivacité ça veut que suñu attaque yi c'était dafa yéex le Mali s'adapte facilement sur nous alors que Mali moo ñu gën taay donc dañ ko waroon a déstabiliser tourner bal bi ah parce que mouvement yi mouvement yi yéex léegi nag loolu mën nga ko jàngatee nu nekk mën nga ne physiquement problème physique la mais problème physique xam nga deux la soit préparation physique bi baaxul mbala équipe bi récupéré wul loolu mënoo ko ñun ñu nekk fii mënuñu ko wax waaw ñu nekk sur place ñoom peut-être ah def nañ préparation physique bu baax mais fii dañ manqué un peu de récupération mais lu tax duñu insister ci récupération c'est-à-dire un tournoi comme l'afrobasket xam nga ñëpp xam nañ ne les matchs ça ça s'enchaîne c'est du 28 au 5 euh, c'est du 28 juillet au 5 août donc les matchs vont s'enchaîner loolu peut-être war na nekk facteur bi gën a déterminant ci li nga xamante ne moom mooy préparation moyen nag daf cee baax mooy que maintenant euh, y a la cryothérapie bi nga xam ne c'est hyper important boo jógee match ñu dugg ci glace bi mu wàññi la lu bëree bëri y a les massages des kinés qui sont là-bas et tout ça ñooñu ñoo lay aider pour nga récupérer nu mu gën a gaawee donc c'est c'est ah y a donc c'est c'est c'est des facteurs yoo xam ne c'est des paramètres qu'on ne maîtrise yoo xam ne yow mii tey c'est mooy li ñuy wax euh, damay fàtte entraînement l'entraînement invisible d'accord ça va mooy li nga xam ne yow mhm. doo ko gis nii doo ko mën a teg sa bët c'est des paramètres yoo xam ne yow maîtriser woo sa jour bu ñibbee këram nan lay récupérer lan lay lekk est-ce que mi ngi naan bu baax est-ce que yooyu mooy ñëw di ay ay détails la yoo xam ne day impacter sur le haut niveau alors man coach day laaj parce que vu que physique la ñu wax. Mhm. Adja dafa ne les filles elles sont top ça c'était avant le tournoi. léegi départ mbaam bi ñu am arrivé ka Qatar bi donc ce qui explique ça xëy na ñu ci bëri mën nañ jàpp ne euh, peut-être défi physique bi la mais aussi age bi xëy na si parce que contre euh, des marché bi ñu joué on a eu une équipe boo xam ne moyenne d'âge c'était entre vingt vingt cinq contrairement au Sénégal donc tey euh, mën nañ ne. récupération boobu noonu ñoom ñu nekkoon au top avant tournoi bi tey ci biir tournoi bi ñuy ñuy lajj donc physiquement préparation physique boobu noonu dafa ëpp ci âge bi la ci âge bi nga xam moom lañ suñu joueuse am li ñu leen imposé moom moo ëpp ci ñoom ba tey loolay feeñ tey wala lan la. alors ni ko ko ci waxee dama koy rejoindre préparation fisique bi mën na baax mais facteurs yi mu développé boo xoolee ci biir la préparation physique li ñu lay wax PPG préparation physique générale. dafa am ay fondamentaux yoo xam ne ay base lu jëm ci wàllu alimentation lu jëm ci wàllu récupération la programmation de la séance nit ki mën nga ko sëf lu bari mais si la régénération ak wul entre match yi te da ngay xool comme NBA di leen di daal wax na ko léegi soit boo amul kii ne di nga am ostéopathe wala ostéopathe wala benn benn benn euh, masseur wala ñu dugale ci machine yoo xamante ne wala ci alimentation boo xam ne dafay am ay amino acides italiens di ko acide aminé pour la récupération rapide bu fekkee ne lekk bi li nga la jël digestion bi baaxul dafay jouer da ngay gis joueur bi muy daw wala nelaw bi doyul mu mel ni yaakaar ne gaanu mu mel ni dañ ko téye soo xoolee ci seen lancé yi tu sens que da ngay am benn lourdeur booy sentir d'après li ma gis ci xam-xam bu ndaw bi mu am trois points yi muy wax plus de cinquante lancé de trois à trois points nga réussir ci quinze wala une dizaine tu sens que ne am na lourdeur da ngay sentir fatigue boobu donc li ëpp li ñu gën a gis c' est la régénération moo ci xaw a manqué et li mu wax c' est vrai am na loo xam ne au sein de la préparation ak euh, dream team bi ñoom ñoo la mën a wax exactement fan la ndax jour bi moo la wax il a bien récupéré elle a bien dormi li mu lekk digere na ko wala conflit de génération d' am na si est ce que mouvement d' ensemble yi ñoo koy defandoo est que la coordination y est c'est des tas de choses yoo xam ne benn bu ci manqué rek day am loolu loolooy indi débauche bi suñu attaque ndoo dafa mel ni euh, footballeurs yi bu ñu jëlee système mu basket attaque euh, euh, défense haute boobu ñu jël ko pour bloquer adversaire bi c'est le contraire en basket parce que basket ci kaw ngay commencer défendre di ñëw physiquement bu fekkee ne deuxième souffle bi boo xoolee dañuy départ ànd ak physique mais bu ñuy dem deuxième troisième quart temps da gis pente bi nu muy ñëwee tu les vois les sens mais régénération bi retour souffle bi du ñëw donc y a problème war nañ delluwaat xool là où le bas fan la ci lekk bi la excès d'entraînement la ñàkk récupération et c'est au sein de l'équipe li mu li mu wax noonu c'est important alors Lamine ñi ngi ñëw si yow mais dama dama parce que Greg question bi mu la posé dafa am solo parce que depuis sànq ba tey les réseaux sociaux les gens s'acharnent sur l'âge euh, des des des des des mais démb la Aya qu'on MVP mu dugal combien de points donc xam nga foofu waxu affaire âge buñ ko fi wax une équipe comme la Tunisie chez les hommes elle est championne d'Afrique te ñi nekk ci banc bi ñëpp am na ci ñu am presque quarante ans quand on voit quand bu ñu demee Côte d'Ivoire bu ci mel ni Solo jabaate gis nañ ko mais dañu gis ne entraîneurs yi bu ñu leen di utiliser ñoom ces joueurs la d'expérience aay mais commencé aussi jël tuuti âge dañ leen di utiliser de manière parce que démb ñu bëri ñi ngi ne Aya elle a été surutilisée face à l'Ouganda mais moo doon pièce maîtresse bi aussi par par, par rapport à, à ça parce que xam am na ñuy wax waxu âge mais elles jouent elles son elles jouent elles son elles sont dans des clubs euh, elles sont en activité donc peut-être choix bi Moustapha def ci ñoom euh, lu lu normal la maintenant par rapport ak utilisation bi peut-être foofu mooy andi problème bi voilà. problème bi fi mu nekk dès l'entame que ngeen bokk même dénominateur commun dañuy jël problème âge teg ko âge dootul compter parce que yéen a bokk même dénominateur commun bi physiquement yéen a moralement mentalement yooyu yëpp da ciy joué mais est-ce que ñoo bokk même longueur d'onde yi ñuy demee parce que manque de match wala manque de régénération comme ni mu waxee def ci joué forcément par force de si ñëw mais boo jëlee mag boo xam ne apport bi mu la indil jeune bi indiluñ la ko lan ngay wax foofu loolu foofu lan nga koy cautionner. si on l'avait mis loolu mooy problème bi. parce que tey moo mu suddu na solo jabate mais la solo jabate bi ñu gis tout à fait ci quatrième carton lañ ko faraloon di gën a gis. Mhm. fekk na dañ ko doon teg ci condition yoo xam ne à chaque fois il était libre pour shooter te ku xam adresse solo jabate aussi pareil donc ay tey Aya Traoré boobu noonu bu ñu ko tegoon ci condition yooyu noonu tey. est-ce que dina dépenser tey énergie bu toll ni mu boot équipe bu Sénégal à son âge fi ñu toll ni alors que à côté il y avait de Yacine Diop amoon mais tu vois dama koy rejoindre nga xool boo xoolee Golden State ñu mu doon joué ren ñëpp xam nañ ni seen match yëpp troisième quart-temps bi lañ koy gagné. pour jouer ko si le cinq majeurs yi di ñëw. ñu ñu def li ñu bëgg def. mais bi ñu tasee ak équipe yi nga xam ne le ci xam na leen bu baax. maîtriser na leen après ils ont eu des problèmes parce que da leen di contrer jël beneen équipe bi physiquement mu ñëw dal seen kaw teel leen ba dem ci seen seen mënin. mais Sénégal moo moo moo équipe yi fi nekk seen loxo lañ jaar donc bu ñu demee ba étudier Sénégal bëgg à vingt points d'écart Mali mel ni Sénégal ko mën tout à l'heure on bi ñu mënee 17 points 3 points bii gel bi euh, daan bi mujjee dugal mais da ngay gis ne c'est comme si que c'est l'entame du match début match bi la ñu nekk loolu def ci da ciy joué bu baax. coach par rapport peut-être à la question de de Greg. oui xam nga équipe dañuy seetaanante. scouting bi mm. c'est-à-dire que Mali ils ont vu que a une chose qui a mis vingt neuf points Sénégal a vu que Mali elles ont eu ils ont une chose qui a mis vingt cinq points donc les statistiques vont changer le Sénégal a mis une pression sur Dieynaba Ndiaye qui avait mis vingt cinq points mm-hmm. <laughs> premier bi deuxième quart-temps tere ko jouer le Mali a fait pareil avec Aya on a poussé Aya à driver Ayaas eh, xoolal bal yi mu jàppee yëpp lay def perte de balle wala un mauvais donc dañ ko obligé mu def li nga xam ne foofu la gën a euh, li mu li mu munul li mu munul torop quoi li mu gënul li mu gënul maîtriser moom arrêt Aya elle bien sur les décalages nga décalé ko jox ko mu taxaw jël un peu am point de trois. ñu xañ ko ko. voilà ñu tere ko ko tey donc loolu da ciy joué. Ah waaw stratégie adversaire bi aussi da ciy joué. Mali ñoo ñu gën taille mais ils ont mis un jour de très grande taille sur Aya mu taxaw di ko gêner bu ñu demee si pick and roll bi ñu wéccoo ko donc dañuy joué ci apport euh, offensif bi Aya amoon pour ñu réduire ko donc match yu démb bi Aya ki nous a ki nous apporte ñaata vingt neuf point te mais cinq points <laughs> c'est c'est c'est c'est aussi facile que ça ah affaire bi loolu la dañuy seetaanante léegi nag bar contre la laa mun a d'accord mm-hmm. mooy que deux matchs yëpp pour man Sénégal utili exploité wul scouting adversaire yi Ouganda Mali moom Mali dañu ànd ba troisième quart-temps Mali da ko jëli ci kaw nangooy balam dugal dem ay lay pañe facile def écart bi ñun démb defuñu loolu contre Ouganda. mais est-ce loolu aussi seen question à se poser loolu est-ce que bon. peut-être mën nga sélectionner ñoo xam ne euh, Yacine boo ko dugalee mën na jël ci kaw défendre bu baax américaine bi war na mën a jël ci kaw défendre bu baax euh, puy boo ko mën na dem ci kaw donc dangay jël équipe bu da ngay xool ñi ne ci terrain ñu mën la defal loolu bu ñu defee travail de kii boobu peut-être nga génnaat leen pour andi expérimenter yi fekk ñi lay épuisé nga leen récupérer nga quelques bal def nga def nga différence donc loolu la euh, Ouganda pourquoi daf mu accroché Mali da ko zone comme ni mu zoné Sénégal Sénégal bi mu jëlee 19 points la zone Mali bi mu jëlee 19 points la doo a zone Mali. c'était trop tard. c'était trop tard d'accord bi dafa jàpp. benn balu 3 points lañ ci jël. Mm-hmm. te boobu benn genre erreur la tu rectifies tu viens on était bien dans la zone. d'accord waaw alors Lamine par rapport au débat après di nga ñëw peut-être ak Greg euh, par rapport ak l'utilisation de Yacine parce que les gens aussi sa s'acharnent sur elle mm-hmm. elle est sans club mais coach aussi bu ko jëlee. peut-être xëy na il a ses raisons tey bu ci kanamee xëy na après nga nga nga ñëwoon ñu ci éclairage par rapport ak Yacine mais une discipline traverse des difficultés c'est-à-dire le basketball la discipline la plus titrée surtout chez les femmes surtout chez les chez les Lionnes mm-hmm. onze titres continentaux mais cette fois-ci depuis 2015 jusqu'à présent mm-hmm. benn genre soog traversée du désert là Coupe d'Afrique bi mujj rek bi nekkoon Cameroun boobu moo gën a grave parce que boobu waroon nañu alarmer on était au pied du podium pour pour le Sénégal je pense que l'alarme a été donnée depuis longtemps tous les journalistes ont parlé tous les Sénégalais ont parlé du basket sénégalais on va vers une compétition la préparation bien faite ça que on ne prend pas au sérieux c'est très simple parce que si on prenait le sport au Sénégal sérieusement il y a certaines préparations qu'on devrait faire quand on va dans un domaine africain. mais loolu si loolu kan la. loolu. ro loolu rôlu kan la. mais c'est ki def planning bi préparation bi kan la. mais attends c'est il y a il y a il y a déjà la fédération qui doit prendre en charge les compétitions il y a le ministère il y a l'État et il y a ceux qui sont là qui gèrent le basket ñoom ñoo war a xam ni gis nga Adja. Euh, fii au Sénégal dañu négliger dañu jëlul le sport def ko une réussite sociale alors que partout dans le monde aujourd'hui le sport est pris pour une réussite sociale la preuve on a on en reviendra tout à l'heure sur un sur des joueurs qui sont décédés des joueurs de Ligue 1 qui sont décédés pour vouloir prendre la pirogue et partir ouais, mais si waaw ouais. ouais. maintenant on va parler du basket le problème c'est que y a rien à dire on est on dans le trou on a vu ce qui s'est passé contre l'Ouganda On a vu ce qui s'est passé contre le Mali. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne pas. Parce que ah, dès qu'on a fini dans troisième carton, quatrième carton, quels sont les jours qu'on a utilisés, disons, ces troisième carton et ces quatrième carton est-ce que ces jours-là waroon nañ leen utiliser foofu wala war nañ leen mën a génne pour utiliser d'autres jours par rapport à ces troisième carton et quatrième carton ensuite défi bi ñuy wax euh, âge dafa am Adja même si on l'accepte pas parce doole xale ak doole mag bokkul ak nu munti doole jour boo xam ni man football bu may daw pendant quatre-vingt-dix minutes yaa ngi dégg pendant quarante-cinq minutes dinaa daw ak xale yi mais les quarante sixième bu jëm quatre vingt dix mille dootu ma am même daw bi non déedéet même daw bi dootu mën a ne no dama maa ngi koy wax ko ci léegi am na jour yoo xam ne bu ñu jëlee aj dootuñu egg si surface de réparation parce que mënatuñu ko percussion boobu ñu waroon am ayaa bi ngeen di wax il était adroit mais xëy na euh, tey boo gisee ñu lancé plus de cinquante point de trois points c'est parce que défi physique bi ñu war a dem pour percuter amatuñu ko parce que régéné wuruñu physiquement taxawaatuñu pour mën ko def donc dañu obligé di essayer loolu parce que physiquement taxawuñu alors quand bu dee loolu nag moo indi li nga xam ne moo tax Sénégal mënatul war nañu mën a xoolaat na la ñuy defaree suñu équipe nationale de basket. d'accord ah. alors coach di nga di nga si ñëw léegi mais y a un technicien qui me dit qu'on devait plutôt jouer tactique on devrait être euh, on devrait jouer plus. en zone et moins à à, à a lay wax rek sànq nee option yi boo xoolee ñaari option yi ñaari équipe ñoo jàkkaarloo man jete plus pour l'option malienne malienne dès le départ dañu xam ne seen bal ci biir lañu ko war yóbbu pour point de fixation Koulibaly à l'intérieur euh, Sika Koné à l'intérieur Sika Koné qui vient à partir du banc c'est leur joueur double NBA qui vient qui fait la différence hein. waaw mais bali dañu ko jox ci biir en plus deuxième chance yi elles ont récupéré trop de rebonds 17 rebonds offensifs 17 donc elles étaient présentes dimension bi ñu am physique bi ñu yore malienne ak euh, envergure taille bi ça nous a beaucoup gêné. d'accord man tey li may déranger moom mooy est-ce que tey euh, cette débâcle là n'est pas à l'image du basketball sénégalais actuellement loolu benn la de deux moom mooy. des nations yoo xam ne tey ñoom ñoo ñuy tere ñu dem dans des afro-basket sont des nations yoo xam ne elles viennent apprendre le basketball ici au Sénégal donc comment se fait ñun tey fi ñu toll nii on peut même pas contrer ces équipes là alors que ñun ñoo leen di jàngal li ñuy def. waaw loolu la dëgg la mais. Euh, depuis plus de cinq ans depuis cinq ans Grégoire waa xaar de cinq ans bu ko ci waxee de cinq le Mali domine en petite catégorie. tout récemment chez les U16. depuis U16 depuis depuis 2009 ñoom ñooy jël championnat d' Afrique. Mmh. en championnat du monde di dem di ñëw tey les meilleurs joueurs de nos champ de notre championnat c' est les Maliens. ce sont dañu imprégné ci ADN donc yow nit ki bu lay dominer petite catégorie di la dominer petite catégorie di la dominer catégorie jamono dina yegg sañoo dootoo ko gagné. moo tax ma laaj na est-ce que c'est pas parce que la petite catégorie sénégalaise bu ko xam ne ça n'existe plus mu ngi noonu ça n'existe plus jotul ñu ndëppal suñu basketball bi parce que tey petite catégorie tamit moom mooy image équipe A dañ koy wax rek tey xale yi bu fekkente ni tey miinuñu fii nii tey bu ñu demee équipe aussi dara duñ ko fa def mais xam nga problème bi mooy comme ni ñu koy waxee rek ah, moyen gis nga moyens dafay kii par exemple tey yow boo bëggoon def ay match de préparation boo invité cinq équipes bu ñu ñëwee di nga leen yóbbu hôtel jël leen en charge xam nga loolu. volonté mais jaru ambition bi ñu amoon. loolu parce que parce que suñu panel bi. le président de la fédération sénégalaise de basketball. Ah. même si loolu ça ne se décrète pas il a hmm. dit qu'ils vont être beaucoup plus ambitieux qu'ils veulent figurer non. sur le podium et pourquoi pas la plus haute marche du podium mais loolu aussi il faut se donner les moyens léegi léegi par exemple basket local bi peut-être moom ak basket euh, ak équipe nationale c'est c'est deux kii parce que boo xoolee bon on a deux joueuses euh, sur le plan local ñu nekk ci équipe bi mais tey le Sénégal vient de rater une Afrochan destinée au basket local en garçon comme en fille cest dire que comment tu veux basket boo xam ne sur le plan local ñi fi nekk permettre loolu ñu dem mais loolu aussi ministère am na ci euh, wàll parce que ministère bi mu commencé arbitrage budgétaire ba léegi ne ki nga xam ne yaakaaruñ ci moom mu gagné dootuñ ko dootuñ ko jël en charge donc les fédérations sont obligées de trouver des ressources additionnelles de pour mën a yóbbu seen ay petites catégories ñu dem parce semaine te dis ci ñoom peut-être donc yooyu yëpp c'est des questions à se poser waaw. Lamine lan nga lan lan nga bëggoon yokk après après très rapidement ak coach après ñu ñëw ci. Yacine parce non, que non mais non mais quand Grégoire me parle euh, ni ñi ñi ñi nga ñi fii la ñu jàngee football fii la ñu jàngee basket. dem nañu mais parce que dañu dem liggéey. nga defee ni tey basket football bi génération foot seeni jour fu ñuy jaar fu ñuy commencé du du petite catégorie Messi fu mu commencé du petite catégorie. Mm-hmm. Sadio Mané fu mu commencé du petite catégorie Ronaldo fu mu commencé du petite catégorie. mais attends mais quand tu ne loo jàngul boo nekkee xale nan nga koy taree mais il faut arrêter ñan ñoo jëloon kii mi ngi wax onze titres africains ñan ñoo ko jëloon Sénégal sénégalais yan yi jàngoon fii basket dès la petite catégorie ñoom est-ce que dañu nekkoon Europe. nekk ñoon Europe de fii la ñu jàngee ñoom ñoom mbëri këfaal bi ñuy jël ay coupe ba fan la nekkoon dañu jaar si équipe di jàng fii ak ñoom Mamati Mbeng bi nekk tey MVP wu basket dans le monde alors pourquoi ñun ñu bëgg bàyyi loolu bëggatuñu liggéey les les génération foot les jàmbaar les Dakar Sacré-Cœur pourquoi ils sont au sommet du football c'est parce que ñeneen ñi dañ ñeneen dañu bàyyi formation ku si mel ni Jeanne d'Arc amul xamuñu sax ndax am na junior wala cadet wala de football jaraaf la même léegi jaraaf ñu ngi commencé defaat la même chose. Mhm. mais attendez mais liggéey mooy tax nga am da ngay jàng école da ngay jàng école. da nga est-ce que da ngay commencer euh, premier. doo dem sixième. sixième ngay commencer. de de petite section ngay commencer da ngay jëkk dem petite section. ñu jàngal la nan ngay waxee nan ngay defee nii ak nan ngay toogee. pour pourquoi léegi bëgguñu ko def si moo tax ma ne la il nag Sénégal africain moo gëmul est-ce que tu sport comme réussite sociale te fi mu nekk nii ñu ngi ni Arabie Saoudite ñëpp a dem foofu. parce que dañu bëgg defar seen football te boo demee si seen i seen seen ah i. école seen investissement seen investissement c'est la petite catégorie boo ko <laughs> gisee. non attends. c'est ça c'est simple. il faut que nit ñi def bi lan nga ci bëgg a yokk très rapidement bala ñuy. du ma ko du sori sax wax le cas Yacine très rapidement du sori. vibrant hommage lay rendre à notre père As Diack. Jaraaf dafa amoon Poussin Benjamin minime cadet junior senior jëpp ci ñoo avant ñoom Mansour Ayanda. wala dëbb si ñoom sax seen seen génération. premier match Jah Jaraaf c'était en 74. j'avais huit ans. yaa ngi dégg di football Demba Diop lever de rideau contre As Diack. huit ans. oui joué en lever de rideau en lever de rideau Coupe d'Afrique Jah contre ASEC d'Abidjan. voilà match kanam yi doon gis sax dafa amoon te li mu wax dafa am solo xale boo koy jubbanti comme garab ci mu tooyee bu demee ba mag nga jëm ko duban ci dafay damm. mooy li ñuy wax sànq blessure xale bokkul ak blessure mag. xale bu dammee en un mois mooy gën a gaaw wér que mag mën na toog trois mois di wér nañu delluwaat ci petite catégorie bi. d'accord et le problème des infrastructures aussi on m'envoie un message pour me dire au Mali depuis presque plus de dix ans. les infrastructures sportives comme euh, euh les euh, les stadiums ak yooyu euh, SM partout donc voilà c'est-à-dire le, le résultat est, est là et basket en salle nga koy def mënoo mënoo ko def en plein air ba pare après ngay ngay ngay ngay xalaat yenn résultats yi loolu yëpp benn remise en cause boo xamante ne bu ñu war a def def un travail profond ñi nga xamante ne ñoom ñooy les personnes ressources ñu jël leen les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour permettre suñu basket jëm ci kanam mais l'utilisation ou bien la convocation de Yacine andi woon na coow cette fois-ci aussi ñu ngi acharné wu ci la joueuse parce qu'elle a été sans club euh, pour yow euh, ban jàngat nga ci def et par rapport à sa prestation balaa ñu changer de sujet. pour man jàngat bi ma ci def rek mooy que xam nga coach aussi day dem ak instinct day dem ak ay croyances am euh, peut-être coach bi def na diagnostic basket sénégalais xool lan moo fi am. et se dit que ne une chose comme Yacine même bu amulee club même bu joué wulee euh, une bonne préparation de deux mois peut-être hic bi mooy comme li rek bu ñu amoon ay match mu gën a joué yeneen match avant ñuy kii nii Yacine c'est valeur sûre qui a mm-hmm. joué dans de une euh, grosse université Louisville donc euh, boo amul yenn qualité yi doo nekk ci kii yi mel noonu donc il faut que les gens soient beaucoup plus patients par rapport ak kaam bon c' est pas une chose la ñu nar a fustiger sur douze. waaw parce que entraîneur comme suñu waxee booy jël douze on peut te permettre de faire erreur sur deux y' pas de problème. mais donc et puis douze yëpp euh, sax duñu joué donc si y' une chose comme euh, Yacine nga xam valeur bi mu am peut-être da ngay jàpp ne am nga espoir que ne. mën na la andil loo xam ne tey benn xale bu ndaw fii du la ko andil. parce que background am <laughs> mhm. ak euh, li mu kii mooy tax. on a un peu manque de ponctualité bi ak assiduité bi quand mhm. comme ni mu ko waxee. mayonnaise pour mu jàpp da nga koy yëngal sooy bàyyi muy dog mhm. pour defar mayonnaise. Ah. il faut continuer à soo bàyyi day delloo nekk liquide dootul compact noonu. d'accord assiduité boobu. ak manque de jeu temps de jeu bu bari boobu. on l'a senti da nga koy gis ci match démb ak tay bi wane na am manqué nañ tuuti temps de jeu. d'accord qu'elle manque un peu de repère euh, ci ci parquet stadium euh, euh, Kigali Arena. waaw <laughs> Afrique dafa am ay réalité ma Aja basketball également compétition du naxaate tey la Yacine qu'on ci petite catégorie bi elle est diamétralement opposée ak la Yacine qu'on avait est beaucoup plus présente ci réseau yi que tey sur les parquets qu'on se dise la vérité fi ñu toll nii tey Yacine sur un parquet kenn mënatu koo xàmme donc xëy na l' entraîneur comme ni ko coach waxee il a ses xëy na dafa am benn plan bu mu amoon ay en marche moom moo taxoon tey mu convoqué Yacine mais cette Yacine là pour man elle a totalement déçu sur ces deux matchs là parce que aussi tey ki ñu xamoon moom mooy Yacine bi nga xam ne tey dynamisme bi ñu soxla ci équipe moom moo ko daan indi aussi ces paniers yi nga xam moom lañ doon am à un moment très crucial ci biir rencontre yi moom moo ko doon assuré donc tey bu ñu tey amatuñ assurance boobu noonu tey donc. Yacine war nañu xoolaat tam ci lan la nekk parce que aussi une sélection du caaxaat ñu ngi mënuñu toog di jàmbat tey un problème de préparation boo aussi bëgg ci boole ay joueuses yoo xamante ne nii kañ la ñu gëj a basket sélection tamit il faut ñu xam ne du ay caaxaan xam nga tey Yacine bu réussiroon tey ce tournoi la ba fi ñu toll nii laay wax donc euh, chapeau la ñuy wax donc c'est un coup boo xam ne jot na koo def mais tey c'est situation boo xamante ne tey ñu ci bëri tegoon nañ ci benn njort ñëpp bi mu convoqué lan la koy doy la ñu waxoon xëy na quelque part il est en train de donner raison à ces sénégalais là qui étaient donc euh, c' boo xam ne ñu ciy dem 2015 lañ ci gëj alors qu'on se réclame tey nation de basketball fan la ñu ko teg boo ñëwee tey mënuloo gagné tey l' équipe la plus faible de ce groupe la nga ñëw dal ci kaw Mali amuñu yaakaar tey est ce que tey ci match barage bi ñu jëm nii. fan la ñu jëm. ak yan yan certitude lañ fay demee. la question de. ville ville li ñu jot a wone très rapidement face à l'Égypte qu'est-ce qu'on parce qu'on pou mal démarrer aussi et moment bi ñu nekk en jambe aussi sensation yi commencé réveillé wu fii fii fii ba le premier août. vraiment gis nga comme ni koy wax rek un tournant boo xam ne premier tour bi kenn du toog il faut de la sérénité que espérer que équipe bi dina retrouver allure bi allure bi waaw ak cohésion bi tuuti. Euh, huitième de finale lañ la ñuy dajeel Égypte c'est une jeune équipe ëpp ñu doole mais il faut qu'on joue mieux. d'accord il faut qu'on joue mieux. est ce que wane nañu la fi mu ne l'erreur n'est plus permise. Mhm. il faut pas euh, commencer à conclure comme non non. non non on peut pas jeter le comme on dit le bébé et l'eau du kii affaire demagul fenn. on a on va rectifier. on va essayer de se qualifier parce que on a vu une équipe vous battre nga taseeg moom. 2015 match nga gagné ko. carrément carrément. léegi maintenant si les Sénégalais savent c'est quoi le Mali et l'Ouganda ñu préparer leen nu ñu leen war préparer parce que léegi am na benn coach boo il fallait jouer tactiquement. Mm. parce que des fois y a l'intelligence domine la volonté dans certaines choses. ah il faut pas aller par rapport avec plus de volonté pour après se fatiguer alors qu'en étant intelligent on peut maîtriser l'adversaire donc pense que ni fi mu nekk nii xam nañ ni jaarul xam nañ nga xam ne moo xaw a troisième quart-temps quatrième temps lan moo ñu indil problème ñu jëm ko changé léegi nag bu ñu gagné Égypte lancer défi défi mooy il faut que nag tous les matchs soit des matchs à gagner ah ñu rey rey seen bopp parce que mën nañ ko yàlla baax. mais mais mais dans ce cas-là actuellement après fii li ñu doon wax fii lay amee solo. Mhm. la régénération boobu bu ñëwee. la récupération ak concentration boobu en soi-même et de rester dans ta xam nga gis nga coach mooy li muy wax. football professionnel bi jour boo xam ni day entraîner fii dem xaar car pendant une heure de temps taxaw si car bi pendant deux heures de temps dem lekk ndàmbe après bëgg nekk performant le dimanche moo tax là les les équipes qui ont gagné les équipes nationales qui ont gagné la coupe d'Afrique les coupes d'Afrique c'est parce qu'ils étaient dans de très bonnes conditions ay waay ngir yàlla def leen suñu football bu dee Raja moo dem bay jëli Ramos Raja di woo Ramos pour jël ko euh, euh, euh, au Maroc équipe au Maroc après nañu après nag foofu lii finir affaire bi yëpp c'est la rage de vaincre c'est le courage et l'abnégation et l'envie et l'envie et l'envie mouiller la mooy comme ni ñu ko dépasser seen limite il faut dépasser tes nekk extrême walk out boobu muy wax pour mën a gagner parce que basket dafa nekk lu metti jouer tey jouer suba kooku boo amul récupération ak régénération bul sonn amul sëriñ amul miracle physique la ak récupération tu peux pas jouer tey à même pas 24 heures nga nar ci entraîné waa délassement parce que dès demain matin wala tey suba dangay ngay def délassement pour relâcher musculaire def ci régénération entraîné si te yeneen tactique et bopp mënul jàppandoo yenn affaire yu bëri am na loo xam ne il faut que mu doon la routine la répétition elle est pédagogique. elle est pédagogique absolument alors il y a quelqu'un d'autre aussi l'ancien international sénégalais qui me dit qu'en u euh, le Mali euh, voilà domine domine l'Afrique donc Sénégal mënuñu euh, di omettre yenn yi nga xamante ne moom mooy compétition yi ba pare bu après briller en Afrique c'est pas c'est pas possible c'est vrai que des fois il y a un problème de moyens et c'est là d'accès où on attend le présent la fédération sénégalaise de basketball maître Babacar Ndiaye et son et son équipe ñu xool naka la ñuy def trouver stratégie parce que lépp mënuñu ko wékk ci état boo xamante ne tout est priorité aussi pour cet état là euh, nga nga bugg compétition bu nekk peut-être ñu accompagner la c'est la où on attend peut-être cette équipe marketing ak yooyu ñu def benn travail boo xamante ne dina leen permettre ñu mun a Sénégal présent ci compétition yi nga xamante ne même bu ñu fa demee mun nañ fa bañ a jëlee réussite mais apprentissage bi expérience la boo xamante ne après dans les années à venir dafay bénéfique loolu nag c'est une feuille de route boo xamante ne moom moom moo koy fixé ak ñi nga xamante ne moom mooy ses collaborateurs et on pense que les personnes ressources manqué wu fi il faut qu'on arrête de gérer des campagnes et qu'on travaille ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, ci euh, ci ci ci période bu bu très rapidement il faut qu'on passe. oui tu peux pas parler de marketing jox place bi à boo xam ni talul dem wuti marketing mi ngi liggéey feneen. te loolu moo am Sénégal da ngay gis kenn koo xam ni. Mhm. lui il est en train de travailler que la ñu def ko chargé du marketing il n'a même pas le temps d'aller gérer quelque chose pour pour pour, pour le basket ni pour le football. c'est ça defar stade annexe Ablaye Wade mu am athlétisme booy yi war a daw championnat régionaux wala nationaux ñuy quitter Dakar di jël car comme ni mu ko waxee. munoo fa def Dakar Arena nga def hôtel boo xam ne c'est pour les businessmen munoo defar stade Abdoulaye Wade defoo hôtel wala comme ni amitié meloon autant stade Léopold Senghor fa lañ doon regroupé dangay ngay am match wala CNEPS bu Thiès il faut que cadre bi changé nit ki li mu soxla nga jox ko ko li muy wax munoo jël mu nekk à proximité exactement mu jege ko munoo jël un menuisier yóbbu ko principal mu def chirurgie mënul nekk. c'est pas possible un menuisier c'est pour le bois et consort ak li mu mën. alors un chirurgien à l'hôpital mu. commune de fonction dem liggéey parce que aussi Adja gis nga défaite dafa métti. dafa dañu bëgg sport tellement ba. Mhm. ñun mënuñu comprendre quoi une équipe boo xam ne c'est comme le Sénégal ak grenier bi ñu am. ñuy dem ñu ñuy humilier de cette manière quoi donc tey. fédération bi muy muy fédération wala boo keneen ak keneen nañu bàyyi wax ci te liggéey ambition am na ku ne am ambition ci àdduna mais ambition boo ko da koy matérialiser. matérialiser ko nag moom mooy ñu toog xool suñu basketball bi fan la méttee ñu xam ne lii la boobu léegi ñu ngi koy wax ñi nga xam ne ñoo xam basketball nañ leen teg coow li doon benn. alors y' a quelqu'un waat dit aussi Greg qu'il faut parler de la responsabilité du coach moi je pense qu'on peut pas tirer ci ci taa bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, des des des des leçons on doit attendre la fin du tournoi. pour peut-être parler du coach ak cumul bi loolu moom non non ne vous inquiétez pas on va revenir largement sur sur ça ak ñi nga xamante ne moom mooy attelage beeg yëpp loolu yëpp aussi il faut que il faut ñu waxtaanee ko mais équipe bi fi mu ne nii rien n'est encore perdu les lions ont des chances si c'est vrai ont leur chance euh, mun nga démarrer euh, benn tournoi moom metti on l'a vu euh, Sénégal bi muy jël coupe d'Afrique bi ci football comparaison n'est pas raison à part seen premier match bi ñu gagné. Euh, euh, seen seen seen seen seen trois points yooyu la ñu lañ la ñu qualifié woo mais après nag li est montée en en en en puissance euh, même si il faut le dire peut-être loolu mun nañ ne y avait une maladie Covid mais quand même y avait un bon effectif du sélectionneur national mais mais, mais quand même mun mun nga mun nga démarrer du du baax nga continuer sa sa sa sa tournoi ci anam yi yi gën a mucc ayib et tout le mal Euh, qu'on souhaite à cette sélection donc très rapidement on parle des Jeux de la francophonie dugg ci ci li nga xamante ne moom mooy euh, football bi Grégoire waa Dia le Sénégal nag mu ngi ci neuvième jeu yi nii jàppal sax ne jamono ji démb jot nañu disputé un match ak ci wàllu ko football bi les U20 yi nga xam moom la Daaf yóbbu ñoom dañu rek mujjee def li nga moom mooy un score de deux buts partout avec un super but bi nga xam ne rek Amara Diouf jot na ko dugal ngir daal di leen tey eh, sauvé ci li nga moom moo jëmoon ci cette rencontre là alors tey ci wàllu ko nag li nga xamante moom moo jëmoon ci wàllu bëre bi mën naa le Sénégal mën na tiré nag une première satisfaction par rapport à la lutte parce que eh, Seny Sembène nekk nag tey jii ko xam rek ci moom mujjee na indi tey li nga xam ne ah, moom mooy la médaille d'or ci lool ci wàllu euh, bëri la donc jàppale rek ne c'est un boo xamante ne tey ji euh, Sénégal mu ngi ko engagé foofee ca biir Congo ngir nag daal di sigiwaat ci li nga xamante ni ah, moom moo jëm cette compétition la gën a préparé aussi li nga moom moo jëm ci Paris 2024 ak yeneen yu alors euh, très rapidement ñu dugg nag cette fois-ci bi tey on la vingt troisième et euh, vingt sixième plutôt et dernière euh, journée euh, de la Ligue 1 sénégalaise mais malheureusement il y a eu politique que les forces de défense ont moo tax finalement ñu ajandi toutes les compétitions sax mais sunuy reporter Dieynaba Oumar Sow ak euh, Cheikh Niang ils ont tiré le bilan avec le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. waaw ci saison bi la waaye lépp loo xam ne tam war nañu ko ci mën a defaat li ko dalee tam ci début ba ci sacre bi na ko ci am. ginnaaw mu amee mbégte ci saison bi jeex président Ligue sénégalaise bu football professionnel daana def ab bilan ci bile saison atum 2022 2023. y a certains partenaires yi nga xam ne téye nañ leen am na ñoo xam ne dellu si nañu. am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw par ndànk-ndànk donc sur le plan financier liggéey bi nga amélioré ndànk-ndànk mais nag des na lu bëree bëri bëri. football local nag commencé tane rek si lu jëm si mbirum koom lu jëm si plan sportif bi nag. boo ko seetloo les stades sont pleins que ça soit à Saint-Louis à Mbour en Casamance un peu partout même à Louga pratiquement ñu ñu ñu gën ñëw donc y a l'intérêt des spectateurs pour le football local. li ñuul ci soow mi nag mooy ay incidents yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si yenn si jongante yi ci saison bi euh, bu ñu analyser Adja la finale Mbour Wakam bëgguma sax di revenir parce que vraiment c'était vraiment dur dañu nekkoon dans un contexte particulier te boo ko seetlee ni stade bi feese woon ñu bëri ñu ngi doon seetaan mais c'était pas des sportifs ce pour indi nit ñu bari rek ñëw seetaan te nit ñi li ñuy seetaan wu leen day ñëw parce que dañu bëgg a ñëw loolu aussi il faut ñu éviter ko parce que il ne faut pas chercher du monde pour avoir du monde nit ñaa ngi wax retrait de point est-ce que le retrait de point est prévu dans dans notre arsenal euh, réglementaire il faut que ñu ñu ñu ñu prévoir ko ak yeneen yoo xam ne aussi war nañ ko prévoir comme ce qui s'est passé ci si si si quand il y une organisation de juniors internationale ñu koo convoqué ay jouru NGB wala génération wala ñu am plus quatre jours ñu arrêté suñu championnat loolu il faut que c'est des choses yoo xam ne à bannir laata ñu yembal jéego yi nga xamante ne jël nañ ko ci saison 2023 2024 bi nag ligue sénégalaise bu football professionnel dina ndax keppe bi les saison ci ñëwaatub finalu coupe de la ligue bi nga xamante ne dina boole stade de Mbour ak club rufisquois bi di Teungueth FC ci juróomi fan ci weeru août bu ñu jéem foofee ca stade Lat Dior bu Thiès. merci beaucoup Dieynaba Oumar saw moom ak Cheikh Niang dañuy des ak ñoom sax Grégoire cette fois ci joxaat kàddu moom Djibril Wade mu dellu siwaat ci fait bi ñuy xaar est-ce que dina am wala du am on va revenir peut-être dans les jours à venir par rapport à la programmation de cette finale qui doit opposer le stade de Mbour à Teungueth FC muy finale coupe de la ligue qui, qui revient cette saison aussi ak li nga xamante ne moom mooy euh, Niary Tally son club qui retrouve désormais le football professionnel. waaw moom mu jàpp nag ni ñaari tali day équipe boo xamante ne Adja équipe la boo xam ne football moom moo ko daal di soxla donc ce qui nga xam ne rek moom la ñaari tali daal di def dafay firndeel ni moom nekkul une équipe de seconde zone waaye tamit dellu si waat na ci lépp loo xam ne innovation la mu daal di koy waajal. on a prévu de grande finale une grande manifestation li daal am mooy am mais cette fois-ci li ñuy mooy euh, yóbbu ko Thiès parce que Mbour Thiès jege na ko Tëngéej aussi Thiès jege na ko le stade Abdoulaye Wade ça me de dépenses. donc situation dëkk bi fi mu toll on préfère aujourd'hui cette finale là ñu yóbbu ko foofu l'année dernière j'avais demandé aux staff dirigeants qui sont des, des, des jeunes que je vous donne trois ans pour me faire monter cette équipe là ils l'ont fait en un an bon qu'est-ce que cela montre cela montre que NGB n'a pas euh, sa place n'était pas en national cela montre que aussi NGB amoon ay taare nga xam ne moo tax mu wàcc parce que bu dul woon violence bi organisation amoon kon je ne pense pas parce que si tu as les moyens financiers nga ci génn mais fii il faut avoir les moyens financiers et encore da ngay football et je pense là aussi il faut que les entraîneurs travaillent beaucoup sur ça pour pouvoir euh, yéegal équipe bi ñoom nag il sont donnés des objectifs que dañu bëgg a yéegal ren elle na ah moi je laisse le défi mais je dis aujourd'hui il ne faut pas aujourd'hui euh, élever la barre o parce que ça peut amaat un effet ba nga xam ne baaxul surtout sur les supporters merci beaucoup c'était la réaction de Djibril Wade alors euh, Lamine Mboup euh, yow depuis entame saison bi yaa ngi travailler en collaboration avec la Ligue sénégalaise de football professionnel ñu gis tout le temps décryptage yi à la 2S ak sunu confrère Adama Adama donc suivre nga saison bi euh, par rapport ak li nga xamante ne président wax nga wax na ko ba amoon bilan boo boo booy tiré lan lay nekk. été disputée âprement des équipes qui voulaient chacune euh, prendre ce championnat. La preuve, l'équipe qui, en fin de compte, a pris ce championnat était très mal classée au, au début du championnat. Une Génération Foot qui était même avant-dernier et qui a cravaché avec le travail bien abattu euh, pour revenir et survoler tout le monde. Donc je pense que euh, tout a été disputé comme il fallait. La, la Ligue professionnelle a mis les moyens qu'il fallait pour organiser avec la, la les Sénégalais poussent regarder ces matchs et voir quel est le niveau des joueurs mais je pense que ça peut être amélioré ça peut être amélioré par rapport à, à, au football par rapport à, à par rapport aux, aux à, à l'organisation, parce qu'il y, a beaucoup, y a eu beaucoup de hic durant ce championnat, parce que euh, les gens n'ont pas pu prendre leurs responsabilités comme il fallait par rapport à certaines déconvenues qui ont eu lieu dans ce championnat, parce que ce championnat aurait, être, euh, aurait pu être beaucoup plus belle s'il n'y avait pas certains incidents. bu xam ne amu ci mais cet incident ont poussé des fois même les gens qui voulaient venir au stade à rester heureusement Heureusement que les, les matchs étaient diffusés, certains matchs étaient diffusés, mais tout à l'heure on en parlait, les gens ne veulent plus aller au stade à cause euh, de l'incorrection euh, de certaines personnes, de la violence qui se passe dans, dans, dans de football. Et ça c'est déplorable. Parce que quand des gens, quand des jeunes sont là en train de monnayer euh, leur talent pour survivre, par exemple ces footballeurs qui gagnent leur vie par rapport à ça, et que à chaque fois, il y a des gens qui sont en train de gagner leur vie autre part et qui sont en train de mettre en mal ce football, je pense que il faudrait ñu xoolaat ko parce que mooy li ñuy wax sànq rek euh, euh, footballeur sénégalais sportif sénégalais jël décision ni moom dafa bëgg ñëw réussir ci football parce que am nga li nit ñi di foog xamul mooy toutes les intelligences ne sont pas pareilles l'intelligence du footballeur n'a rien à voir avec l'intelligence du basketteur les joueurs sont dans le terrain mais ne sont n'ont pas la même intelligence alors je pense que toi qui es la supporter yow nga gis ay xale yoo xam ne dañu jóg pour ñëw jaay seen seen bakkan ci biir terrain parce que tous les risques sont là les risques de de de, de crise cardiaque les risques de euh, de fracture tout ça ñu ñëw di rey seen bopp di jaay di jaay seen doole pour réussir alors que ñi nga xam ne ñoo nekk autour joxuñu leen li nga xam ne moom moo war. pour que ñoom ñu am cette réussite sociale je pense que loolu la ñu war a gën a xool ndaxte bu ñu gën ko xool mooy les dirigeants qui gèrent le football ñu xoolaat nan la ñu war a mën a gérer parce que sànq maa ngi lay wax sànq ni am na ay joueurs professionnels yoo xam ni tey dañu dem jëli gaal kenn ki góor la keneen ki jour Linguère la ba sànq rek lañ ko nekk ci réseaux sociaux di ko wax pour pourquoi parce que y a tout tout le monde en premier les parents dama bëgg rek nga may ma ngir yàlla. les parents qui sont fautifs parce que ces jeunes on l'a pas suivi comme on suit l'autre qui va à l'école alors que yàlla leeram na ne ni kii si lii la mën a réussir intelligence fii la fii la fii fii fii la fii fii fii la nekk nekkul si affaire menuiserie wala mu nekk feneen nga jël euh, après y a ce président qui le prend qui le amène dans un terrain de football est-ce que tu comme qui lui donne pas son argent comme il se doit te moom carrière fii la yem quinze ans de carrière la am bu ram de payer mais laisse-moi te salaire yi mënul sax 400 wala 200 pareeguma après y' a c'est c'est c'est c'est cet a cet état qui ne fait qui voit tout ça qui voit tous ces jeunes qui sont sportifs et qui vont vers le chômage et qui laissent faire parce qu'ils n'aident pas ceux qui doivent être aidés pour gérer ça parce que y' a des gens qui nga xam ne dañuy dépenser seen xaalis. pour aider le football. mais le président amoon il avait il Mais, pour le football la promesse pour quand. parce que y a des jeunes yoo xam ni aujourd'hui ils sont en fin de carrière qu'est-ce qu'ils vont devenir alors que le professionnel a commencé quand il y avait une section amateur fille football amateur amoon dans le Sénégal. d'accord. non non non dama bàyyi ma terminer. waaw yaa ngi je parle des responsables. vous les journalistes vous êtes responsables. nous les anciens nous sommes responsables. parce que jéemuñu aider ces jeunes là à acquérir li nga xam ne la lañu parce que quand des anciens internationaux quand des anciens footballeurs pensent à eux-mêmes et ne pensent pas à ce football qui doit se développer y a un problème. quand les ministères ne ne font rien aussi pour développer ce football. pour voilà. que pour que xale yi am seen. seen ak ak seen yelleef am soo xam ne dinañ ci mën a dund parce que tey. Mm-hmm. lan moo indi pro lan moo indi trophée fii. c'est le football c'est des joueurs locaux qui ont amené fii la ñu nekk Sénégal di Sénégal di feetu Sénégal di def alors que xale yooyu bu ñu paree dañ leen di bàyyi fee ñu nekk ay chômeurs. d'accord euh, Grégoire ñu delluwaat ci terrain bi moom moom syndicaliste la très très rapidement. dama wax ne gis nga Adja président santaane euh, ñi a bind dañuy bind mais ce que jéego bi ñu war a def ba fa mu war a yegg yegg fa ñu ngi koy def loolu benn la de moom mooy euh, léthargie bi ñu nekk di dund tey dans ce local la pour mën gaaw la dëj parce que aussi stade Ibrahima Boye ay scène de violence xew na fa ba ñuy commencé championnat bi lu ñu waxoon stade bi euh, baaxul pour ñu mën ko jouer lu tax parce que tey ki toll si biti mën na xaañ xeer mu dugg ci biir pelouse bi raison de sécurité lañu ñu wax bu ñu demee tey ba jouer fa en match problème yu mel nii am ci donc tey est-ce que bu ñuy wax ne saafara bi tey fii la fii la est-ce que kañ lañ ciy jóge kañ. le problème aussi les les sportifs aussi sont responsables. nga baal ma les sportifs eux-mêmes sont responsables parce que ne prennent pas leur courage à deux pour dire non et c'est tous les sportifs y a pas que y a pas que les tous les sportifs qui ne disent non parce que da nga gis benn entraîneur boo xam ni dañu ñëw imposer ko li mu nangu ko da nga gis benn jour boo xam ne dañuy ñëw imposer y a yoo xam ne amuñu salaire quatre mois de salaire amuñu ko te xale bii dem di fële dafa toog seen kër xam ni moom tey bu demul wuti mais il sera la de la famille. cahier de charge yi ñu respecté wul. alors euh, loolu. Euh, c'est faut... tout le monde qui est fautif. d'accord d'accord Lamine parce que il faut que il faut qu'on avance c'est-à-dire euh, li nga xamante ne moom mooy football local bi surtout le football professionnel lu ñu naan tegle bi ci ci ci ci kii bu njëkk ci bool bu njëkk bi ci la ñu xaw a ratee mais gis nañ léegi club yi quand même ñu ngi ñu ngi jéem. pour gën a remplir li nga xamante ne moom mooy cahier de cahier parce que au début bu ñu remplir woon cahier de charge rek respecté ko problème yi yëpp du am ndax cahier de charge yi dafa jëloon li nga xamante ne pratiquement mooy mooy mooy mooy wax ci ñuy ñuy wax. mais mais nga mooy man je reçois beaucoup de plaintes. des équipes qui ne payent pas leurs donc fan la football professionnel bi nekk. les professionnels d'accord euh, ki nga xamante ne moom mooy prési dafa dafa évoqué ñaari ñaari ñaari poñ yoo am solo dama leen koy posé yow ñaari coach yi muy ce populisme là parce que léegi da ci am ay président club yoo xamante ne aussi. ay responsable politique lañ donc des fois li nga xamante ne moom mooy seen équipe buy jouer dañuy jënd ay billets jox ko ay jeunes yoo xamante ne pratiquement mumbaay beeg xumbaay bi moo leen di yóbbu ci match bi donc ñooñu esprit fair play bi ñuy xaar ci supporter bi supporter type bi nekku ci loolu aussi problème la y a un autre problème législation bi parce que am na ñoo xamante ne le communiqué que la fédération sénégalaise a sorti pour wax ne ay xon ci sont à l'origine de ce qui s'est passé diggante Jaraaf ak Guédiawaye ça a fait rire beaucoup de personne parce que football toll aussi ñu ñuy wax ay problème mu xon loolu aussi sa pose problème c'est-à-dire ay ay yoo xamante ne c'est vrai dafa nekk ci société bi mais duggaale ci li nga xamante ne moom mooy football bi dañ koy gis ci basket bi dañ koy gis feneen donc faaw ñu ñu ñu waxtaane ko pour jëm ci trouver solution coach quand tu peux pas avoir les mêmes sensations wax na ko léegi les hommes qu'il faut à la place qu'il faut xamoo sensation bi coureur de cent mètres di am ci course bu bu bu bu bu fatidique bi muy def ni mu wala ku def quatre cent mètres lactique bi muy am ni muy dawee cardiovasculairement ak musculairement lan lay yëg yow nga ne lan nga populisme wala lan nga am nga lay moins munoo yërëm kooku parce que xamoo li mu yëg ñi toog si turbine bi wala si touche bi di yuuxu mosuñoo dugg biir terrain mais boo footballee benn yoon baa nga basket benn yoon tóoro wala nga dem dem dem contact comme mbër une minute wala trois minutes de corde comme boxeur wala nga def cent mètres ñu def loolu ko di fois di nga respecté ñi ngay teg si terrain wala di ànd ak ñoom tant que amoo sensation boobu théorie woo nga bëgg pratique wala nga pratique toog di théorie rek il faut allier théorie et pratique munoo jël li ma la wax sànq j'ai rien contre suma tàntam nday njaay mais di jaay jën nekk benn poissonneuse nga xëy def ko mu bëgg nekk entraîneur athlétisme jigéen mënul nekk loo nekkul taalibeem doo doon sëriñam nit lu mu sonn wala lu mu jaarul mënu ko tari c'est pas parce que les gens ils des moyens pour remplir le stade wala pour faire la buzz nga ñëw taxaw ne tu as les moyens wala législation bi may na la loolu non ñi nga xam ne dañu tarbiye ci football bi yan entraîneur football ñoo football dina am exception wala ñan ñoo xam ne xam nañ domaine bi xam nañ mbir bi nga jox leen ko jox leen seen aq ak seen yelleef ñu xam yan sensation nit yi fan lay yëgee wala ngay compter loo nit yow dangay taxaw un deux trois xamoo sensation bi muy am onzième ak quinzième ak centième war nga ko xam un ci war na tëdd di nelaw dégg ñuy defloo athlète wala sportif exercice mu laajte ban compte la toll mu ne la kon battement yi toll na fii muscle bi mi ngi cramé na wàññi fii la war a toll rien bu xamee ban nombre de compte la toll loolu il faut nga pratiquer pour xam ko. pour xam ko coach peut parce que il faut que ñu am organisation. Mm-hmm. donc euh, un club c'est tout un environnement. et environnement bi parti yëpp dafay compter. Mm-hmm. quand tu as des supporters il faut que nga mën leen organiser d'abord il faut que ñu organiser wu ñu identifier leen. Euh, ñu éduquer leen par rapport sport bi ñuy bi ñuy pratiquer parce que c'est c'est déterminant pour la réussite de, du sport sport munoo ko jaay bu amee violence mënoo ko jaay boo xoolee ñiy réussir ay NBA gi ils badinent pas avec ça waaw tey boo demee ba stade nit ki mënul ñëw ak famille am ñu toog jël plaisir dem ñibbiwaat tranquillement mais nit ñooñu loolu bu ñu mënul am loolu mais dañuy toog seen kër bu ñu toogee seen kër mais waa sportif bi waroon feeku mais. dafa ci daf day am manque à ci moom. bu ñu bëggee développer affaire bi mais c'est c'est c'est aussi simple que ça il faut ñu xam ne dañu am benn produit bu ñu war a jaay pour jaay ko nag dafa am ay de compagnement waaw mesures compagnement mooy que d'abord ñu am ay supporters yu bari bu ñu ñëwee ñu feesal stade bi. d'accord avec respect ku nekk respecté sa morom loolu mooy andi sponsor yi mooy indi lépp lii Lamine doon wax sànq le statut du sport du sportif n'a pas encore changé ba léegi dañ ko war a yóbbu assemblée nationale pour ñu voter ko pour que ñu mën a reconnaître le sportif professionnel mu am statut mais loolu moo lay wax man organisation la yu bëri li ñu teg ci ginnaaw ba pare bëgg a bëgg a dem du ñu dem. c'est pas possible waaw c'est ça le problème mu munul nekk répété woon naa ko lancé waat naa appel bi on attend du chef de l'État que ce code de du sport sénégalais ñu euh, rédiger ko adopté ko buñ ko defoon rek fondement bi après li ci des mun nañ ko wéyal et c'est ce qu'on attend de lui balaa ñuy changer de régime gis nañ euh, engouement bi gis nañ passion bi mu am ci sport et on espère que balaa mu fi jóge ce code du sport là nga xamante ne ñëpp moom la ñuy xaar au moins dinañ ko adopté y a des intellectuels des sommités fii ñoo xamante ne déjà ñu leen contacté woon dinañ mun a bind wala code des sports bi déjà bindoon nañ ko ba pare avancé woon nañ ci amoon na ay démarches yu CNOS defoon moment boobu Matar ba moo fi nekkoon on espère que désormais dinañ parafé li nga xamante ne moom mooy ce code euh, du sport nga xamante ne avancé la jéego la bu am solo pour ñu xam exactement lan la ñu bëgg def ci sunu sport naka la ñu koy awale ak également à court long et moyen terme yan objectif la bugg parce que loolu aussi il faut ñu xam ko bu ñu ko xamul aussi dañuy continuer rek li nga xam ne def nii la ñuy def des fois ñu gagné des fois aussi on on on na à à à, la maison alors très rapidement par par par par rapport au au, au mercato di nga di nga si ñëwaat léegi Lamine euh, am na ñoo xamante ne fi mu ne nii surtout pas au sport bi ils l'ont compris ñi ngi koy doxal xel yeeg xalaat yëpp jamono ji mi ngi ci Arabie Saoudite rawatina avec notre numéro 10 euh, di Sadio Mané. Dia moom nag il devrait très sûrement rek dem euh, rejoindre ki nga xamante moom mooy Cristiano Ronaldo Sadio Mané nag qui va changer d'air qui va sûrement tey changer li nga xamante ne ni euh, moom mooy euh, de mode de sport par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu habitude di gis lu ni mel El Hadj Ousseynou Diouf yekki na ci ay kàddu ñu tegu. Sadio Mané Al Hilal est-ce que c'est ça que j'ai l'habitude de le dire et on en a parlé. Je dis Sadio, la balle est Si tu as envie d'y aller et dans ta tête tu envie d'y aller, tu vas. Si tu veux rester au Bayern aussi, c'est ton choix. Mais je crois qu'aujourd'hui, le meilleur choix pour lui, c'est d'être bien dans sa tête. Et je crois que des décisions pareilles, il faut être bien dans sa tête pour les prendre. voilà mu doon éclairage wu ancien international sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf ci micro Babou Ndour ba ci sujet bi aussi on s'est approché de notre championnat boobu muy Mamadou Diallo actuel sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer. waaw moom ñëwaat na nag ci kàddu yi nga xam ne sélection nationale jotoon na ko yëkkati waaye tamit tey li nga xam moom mooy porte bi football fële nga xam moom mooy Arabie Saoudite mën a am ci li nga xam moom mooy cette sélection la ak yan critères la ñu déglu. mais maintenant entraîneur yu bari dañuy juum ci côté boobu du ma sélectionné jour parce que championnat bi la nekk pour man ay erreur la lan moo ci am solo xoolal qualité jour bi jour bi force bi mu am ak lan la mun a apporter équipe nationale bi maintenant. cas bi ñëw na tey ji jour suñu jour sénégalais yu bari ñu ngi Arabie Saoudite est-ce que dinañ leen sélectionné du leen sélectionné dañ leen di sélectionné ils ont obligé donc loolu mooy wane ne des fois il faut pas que ñu indi ay discours parce que jour bi championnat bi la nekk du ma ko seen sax mais Sadio Mané tout récemment li mu wane contre Cité ñëpp gis nañ ko mais même même envie boobu même force boobu bu ko demee yóbbu ko Arabie Saoudite aussi ce serait la même chose que que mu nekkoon Bayern que mu nekkoon beneen équipe bi après différence bi lan la parce que après y a les ligues de champions et tout ça foofu la différence bi di nekkee mais joueur bi bu nangu téye capacité am nangu téye qualité nangu téye na nangu liggéey pour man du am benn différence par rapport ak bu ñëwaatee en équipe en équipe nationale voilà, c'était la les éclairages de Mamadou Dia, l'ancien international sénégalais. Lamine Mboup lan la ñu mun a xaar parce que Sadio tey normalement parce que moom ñoom ñëpp moment bi sax ñoom ñi ngi Asie euh, mu mel ni fi mu ne nii Asie moom dafa tàmbali di euh, récupérer li nga xamante ne moom mooy le le football sur sur sur plan mondial ah war na dem Dubaï pour passer li nga xamante ne moom mooy visite médicale am intégrer le club saoudien Al Euh, cette fois si nit ñi ragaluñ li nga xamante ne moom mu dem foofu mais désormais ces performances la ñuy xaar surtout ak Coupe d'Afrique bi ñu jëm. bon je viens d'écouter Mamadou Diallo et El Hadj Diouf et je pense qu'ils ont touti dit un, un, jour de football waaw waaw footballeur ak foo mënti nekk c'est quatre-vingt-dix minutes c'est des entraînements c'est des préparations amul équipe bi fii la nekk wala équipe bi fee la nekk la preuve je entre maa ngi xool see maa ngi seetaan match yëpp Al Nassr bii ñuy wax bu Ronaldo nekk dafa match nul ak Inter de Milan ba sànq un un partout on a vu le Paris Saint-Germain être fatigué par une équipe de de de du Japon. yaa ngi dégg aujourd'hui euh, euh, Arabie Saoudite li ñuy def moom la Japon def la preuve aujourd'hui les Japonais et les Coréens sont en train en quart de finale de la Coupe du Monde parce que dañu liggéey. yaa ngi dégg nous on est en train d'arriver en huitième de finale de la coupe du monde parce qu'on a des joueurs qui sont performants parce qui sont très bons aujourd'hui le Sénégal a arrivé est arrivé à remporter trois trophées africains alors que ça fait des depuis le début musuñu ko def ça veut dire que y a des performances qui sont cinq il y a des performances qui sont en train de se faire parce que le football a changé sànq ba léegi ñu ngi ciy wax tout est question de sérieux de régénération d'entraînement est-ce que tu comprends de capacité Sadio Mané à Al Hilal ou à, à au, au Bayern Munich ou à El Nas ce sera toujours le Sadio Mané qui aura son talent qui aura son sérieux qui aura son envie de montrer que c'est un grand footballeur et je pense qu'il va assurer aussi sa sécurité financière parce que aujourd'hui euh, les footballeurs qui ont euh, qui ont mal géré leurs leur, leur, leur aujourd'hui on a vu euh, c'est des c'est des des gens qui sont dans des difficultés et image Sadio Mané mais est-ce que vous avez vu ce que Sadio a gagné Sadio Mané gagné. palmarèsam kan moo ko fi mës a def. mais qu'est-ce qu'il a encore à prouver. même notre la Joute nationale ne l'a jamais fait même Bocandé ne l'a jamais fait. te fi mu nekk nii mi ngi noonu il est au haut niveau Ronaldo. keroog ko gis mu naan on m'a critiqué quand j'allais en Arabie Saoudite mais tout le monde est en en Arabie parce que c'est les moyens parce qu'ils veulent faire leur c'est parce que le Raja a, a veut quelque chose. peut-être que le TP Mazembe Al Ahly Al Ahly de l'Égypte ñaata joueurs européens lay jël di leen yóbbu. quels quels sont les entraîneurs européens qui paient des centaines de millions c'est que nous on est un peu en retard par rapport au financement du football moo tax yenn affaires yi bu amee dañ naan est-ce que lii war na mën am wala mën a mais Sadio ce restera toujours le Sadio Mané qui sera on va vers une d'Afrique des nations est-ce que tey euh, rythme yi nga xam ne duñ bokk ak intensité bi nga xam moom la ñuy fekki période bi ñuy jouer coupe d'Afrique bi aussi ak euh, condition climatique yi ñuy fekki tey en biir euh, en Côte d'Ivoire tey est-ce que tey du nécessité quelque part ñu def une préparation spécifique par rapport ak tey cette préparation de la CAN exactement préparation spécifique da ciy daw looloo yi waral su ñu demee ba toll benn moment bi dañuy teel a rejoindre dëkk bi compétition mu am pour mën a jël température dafa mel ni nga jëlee jour am mu jóge fii ci suuf nous des sahéliens nga yóbbu ko altitude bu teelul adapté wu bu joué dafay sox ses poumons vont être fatigués régénération du am euh, oxygénation bi bokkul parce que fii dafa tàng fii dafa sedd d'accord même entraînement yi la même alimentation la même récupération la Arabie Saoudite joué si naaj bu tàng après gee la ñuy joué te dañuy joué moment yoo xamante ne bokkul ak Europe heure yi ñuy joué mais coupe d'Afrique bi jour yi nga xam ne sax dañu tàmm température Europe ak rythme Europe bi bu ñu teelul ñëw balaa ñuy dugg ci match yi da nga koy gis moo tax Côte d'Ivoire bu ñu dem coupe d'Afrique da ngay teel a préparer tubaab bi dañuy nax à chaque fois boo xoolee ni ñu defee seen calendrier tout récemment avant mondial bi Sadio bu ko ay kàngam wala ñoo xam ne ay techniciens yu yu yoo xam ne dañ xaw a saay saay nañ ma baal ci terme bi bi ñu dem coupe de coupe du monde du blessé koy teel a récupérer tu fais la simulation à une blessure mu anticiper pour mën a ñëw jouer coupe du monde mais dañ ko bàyyi di ko utiliser ni ñu def ay Sergio Aurier ak yeneen joueurs parce que dañ la fay xaalis bu bari. déjà départ la woon en Europe. ñu bañ ñu ne la am na ci joueurs yu seen équipe qualifiée wu. ñu bëri ñu demande seen club pour ñu mettre leen. à la disposition de leur sélection nationale pour ñu permettre leen ñu participer parce que nag une coupe du c'est la pratiquement deuxième compétition la plus prestigieuse au monde. exactement après après les Jeux olympiques. mooy li doyen wax parce que ñoom seen koom seen moyen fi ñu ko def seen intérêt mooy dañ lay juró dañ la fay ce club juró la comme que seen intérêt boobu lañ ci xool donc affaire bi moyen kese la asi gis nga ni mel léegi nit ñu récupérer affaire bi ils ont les moyens. amu amuñu woon ressources humaines bi amuñu woon les hommes qu'il faut xaalis koy jënd ils vont faire l'échange li amoon bu njëkk bu mu am jox ma dugub ma jox la ceeb. am nañu xaalis amuñu jour ñu jox leen xaalis ngeen ñëw. ils ont commencé à intégrer les à acheter les clubs. bien sûr à acheter les clubs mais Paris yàgg na. avec les fonds d'investissement. c'est ñaar lañ koy poser aussi euh, très rapidement balaa ñuy dugg ci bit soccer bi euh, cette fois-ci nekkatul rek Sadio coach d'abord après Lamine euh, mais Edou ma nga fa le capitaine de cette équipe nationale mi ngi fa te c'est clair que Sénégal. moment bi détenteur du titre africain dafa bëgg conserver son son titre xawula tey un peu xel voilà. bon tout dépend lan lay fekk foofu waaw parce que man je maa ngi dafa mel ni dafa football dafa commencé def benn mutation parce que boo xoolee championnat yi euh, championnat yi gënoon mag championnat Italie la woon après Espagne ñëw jël relais bi mais nan la ko jëlee problème d'investissement la problème de moyen est-ce que Arabie Saoudite commencé wu ñu nar a ñoom it récupérer euh, le centre la la capitale du football. c'est-à-dire que parce que sénégalais yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy toxu ah. bi Sadio jógee Liverpool dañu <laughs> toxu dem dem dem Bayern léegi gars yi dañuy commencé xool ban chaîne mooy génne match Sadio Mané yi ak sénégalais yi fa nekk. dem foofu léegi nag bu fa ay joueurs de même calibre que Sadio maane daje mais c'est du coup championnat bi day relever. dafay relever peut-être mun nañu wax am am nañ inquiétude est-ce que bu ñëwee du nga fi génn fii mais Sadio ku ko xam ak euh, hygiène de vie ak sérieux bi mu am il va essayer de garder le même niveau de d'intensité et de de kii waaw peut-être compétition yi doon benn mais euh, loolu sax question bu ñuy posé la parce que kenn xamagul joueurs yi fa daje bëri nañ Benzema nga fa ñëpp nga fa léegi. Ah mais compétition bi day relever. mais non c'est vrai. boolewaale ci ak euh, Elimane. Euh, Eliman Ndiaye. Euh, à Marseille. à l'Olympique de Marseille. Euh, Ismaïla presque le même profil. ci fi nga xamante ne moom mooy cloire équipe nationale. Mm-hmm. qu'est-ce qu'on attendre de aussi y a Pape aussi qui est qui est la maison aussi fële ci Olympique de Marseille Pape Gueye. Pape Gueye mm-hmm. écoutez moi je pense que c'est une bonne chose. c'est une très bonne chose pour l'équipe du Sénégal parce que déjà avoir un noyau dans un club. la complicité va encore être de mise foofu lay gën a nekkee maintenant dafa dafa am lu coach wax léegi lu neex. mais coach yi déjà commencé nañ di wax Coupe d'Afrique bi war a am au mois de de de janvier commencé nañ déjà grincement de dents yi parce que nee moment boobu la ñuy gën a soxla seen i joueurs les joueurs africains yi dañuy dañuy la FIFA a donné des des des des des des règles les joueurs doivent aller dans leur sélection est-ce que tu vois et puis aussi il faut des que euh, xëy na patriotisme du ma ko wax mais il faut des fois aussi jour bi am fulaam ak faydaam mhm. des fois imposer wu ni man damay jouer pour suma dëkk waaw balaa may dem ci contrat bi damay jouer ci suma dëkk bu ma soxlaa damay jouer est-ce que tu vois loolu na ko def mais coach ce qu'on ne sait pas que autant il de a des joueurs qui vont en Europe autant il y a des joueurs qui vont dans il faut que nit ñi xam que dans les clubs arabes ils ont des joueurs très bons la preuve le le le le l'Algérien qui a marqué le but contre le Sénégal contre le en 2019 mm-hmm. fu mu jógee du du y a qui sont là-bas y a beaucoup de Camerounais qui sont là-bas y a de Sénégalais qui sont là et qui sont aussi bons seulement comme ni nga ko waxee dañu doon ñun Europe rek la ñu gis. on a on a le complexe de l'Europe. waaw déjà mais gis nañ Vincent Aboubakar sax sa prestation avec le Cameroun. mi ngi noonu complexe Europe boobu ñu am di seetaan football te li mu wax nii dafa neex torop man dama daan seetaan Liverpool faral Liverpool bi Sadio jógee fee seet musuma seetaanati benn match Liverpool. dama dem di seetaan. d'accord alors. <laughs> ngi noonu donc damay al al al ba sama xol sedd parce que suñu Sadio moo xam. almas rek juste li Grégoire doon wax. ci question de condition physique bi. li ci ëpp solo mooy adaptation bi. dell dem ci endroit bi ñu war a jouer pour mën a jël température yi parce que dëkk yi bokkul. température yi bokkul et saison yi bokkul. et bu ñu fàtte ne en Afrique on a que deux saisons. Ouais. par contre en Europe am nañ quatre saisons. am nañ printemps automne hiver sax d' accord voilà. puis euh, peut être que le sélectionneur va disposer beaucoup plus tôt de ses joueurs xëy na réticence yi am en Europe du am fële nga xamante ne moom mooy peut être Arabie Saoudite alors euh, on parle de la préparation de cette coupe du monde encore qui va se jouer fële nga xamante ne moom mooy Asie euh, plus précisément aux Émirats arabes unis léegi les compétitions majeures yëpp. foofu lañ koy foofu lañ koy discuter non non en fait ils ont ils ont compris ils ont compris l'importance du sport retombées yi mu yi mu mun a am sur le plan diplomatique ak li nga xamante ne moom mooy sur le plan financier ils l'ont ils l'ont compris alors ci wàllu beach soccer aussi ñi ngi ñi ngi wàcc euh, mai il euh, un mais waaw mais mooy Dia les manquements rek parce que aussi euh, équipe nationale dafa am loo xam ne daf ko laaj mais comme li nga xam ne doon jot noonu na ko souligner sànq Sénégal lu ci bëri li ñuy préparé moom mooy un tournoi boo xam ne dafa jege bokk na ci tam li nga xam ne le sélectionneur national jot na ko naqar. 2015 ba tey kenn mënul leen dara. ay ndam rek lañ doon tegle équipe nationale beach soccer bu réewu Sénégal ñàkk na titre de champion ci Jeux africains de plage yi doon am sa amame sa Tunisie ñu lajj ci seen diggante ak Maroc. nangu parce que boo xoolee ñun dépp ñu jógee Coupe d'Afrique ça fait huit mois amuñu benn match amicaux ci diggante bi Maroc huit mois yooyu lu mu bon bon bon am na ci entre douze à treize matchs amical te ñun ñëpp xam nañ ne picc soko du ay entraînement rek moo ko yor li koy yor mooy il faut que nga jouer match yu bari. gannaaw defet googee. Ndiognou Alseyni Ndiaye am nañu defet ci kanamu Iran. ak si kanamu Riif si laata nag ñuy dabuwaat ci seen diggante ak Émirats arabes unis ci tournoi des quatre nations ñuy xaarandi coupe du monde 2023 bi war a am sa Dubaï li ko dalee fukki fan ak juróom jàpp ñaa fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2024 jamono gi tembe Mamadou Diallo seen ab entraîneur nas na ab planning ba noppi boo xam ne déposé na ko sa direction technique nationale. bu fekkee da nga bëgg dem jëli ji coupe du monde partenaires yu mag yi nga mën a jël lu mel ni Brésil foog nga dem xooli ji ko. lu mel ni Japon foog nga dem GIE jeex moom lu mel ni Iran bi ñu génn foog nga dem GIE jeex moom lu mel ni euh, euh, Émirats tamit foog nga dem GIE jeex ñoom cest à équipe yu bari lu mel ni Portugal équipe yu bari bari na fi mais loolu aussi tamit dépense bu bari la laaj. fi mu toll nii nag ëllëgu équipe nationale beach soccer bu réewu Sénégal mu ngi si loxoy fédération sénégalaise bu football ñaari mbir kott la kuréel gi mën a def mooy fexe jàppale leen ba ñu def loo xam ne ni daana romb fuufa. jàlloore yi nga xam ne defoon nañ ko si atum 2021 foofee nga xam ne équipe bi mu ngi yemoon si demi-finale yi wala rek ñu toog seetaan leen ñu dem sa boobu la jongante ngir participer ji rek tournoi boo xam ne ñamu dajale mooy fukk ak juróom benn équipe beach soccer yi gën a am doole si àdduna wërngal këpp voilà merci beaucoup Dieumbe Mbaye moom ak Cheikh Niang qui sont allés Lamine, un par rapport à ce qui se passe mais, du kenn bu doon football ñëpp génn non dañuy waxtaan bu doon football la la def nii bañ ko jox moyen bañ ko jox bi yéen yéen ngeen génn si pour nit ñi génn kaas fii wax fii muy muy basket bi di bësi soccer bi di futsal bi non non même bu bokkee da déglu ma rek dama lay wax fédération sénégalaise si boppam xam nga lu ñu gëm équipe nationale A bu doon bu doon dañu jóg nii la ñu defal li Sénégal yëpp mobilisé wu est-ce que gagné wuñu coupe coupe est-ce génn nañu manifester gagné wuñ demuñu coupe du monde est génn nañu man est-ce que yéen journalistes yi def ni ngeen koy defee ci euh, ko. moi j'ai reçu à plusieurs reprises. waaw tu mais les autres ne l'ont pas fait. est-ce que bind nañ ko c'est un esprit. il faut que nit ñi xam ko aussi c'est un esprit ñun man mii sama wàllu bopp sax xëy na. Euh, ni ni may seet attendre de la fédération benn planning parce que euh, même le président maître Augustin Senghor li mu wax mooy objectif bi mooy peut-être suñ première coupe du monde chance yi ñu gën a am mooy ci beach soccer bi. soulever ko maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions. kii ñi mu war a taseel am na koo xam ne def na treize matchs amicaux moom defagul benn. ce qui veut dire que il n'était pas suivi alors que l'équipe nationale du Sénégal a fait des matchs amicaux par mani la la ni ñu koy waxatee la barre n'a pas été comparaison bi non non da nga ma demander un avis tu m'as demandé un avis pourquoi ma ne la lii moo tax c'est le peuple sénégalais c'est les instances du euh, ce sont les dirigeants du Sénégal parce que bu ñu ko joxoon fayda comme ni ñu joxee feneen sànq dama ko wax waxuma ko rek. mais jox fayda quand même mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre léegi ñu nekk dans de bonnes conditions mais ce qu'il a vu aussi benn taxawaay bu met Augustin Senghor am. Euh, bien avant même euh, li nga xamante ne moom mooy championnat bi parce que aussi xaw nañ fi yàgg tuuti bien a toujours cru en cette discipline loolu aussi il faut que ñu souligner ko duñu avocat wu Me Augustin Senghor ñoo mag loolu mais ce qu'il faut ce qu'il faudrait souligner mooy cette équipe là qui doit aller à la coupe du monde au mois de janvier a besoin de se préparer maintenant c'est ce qu'on attend de la de la de la demandé pourquoi vous man moom wax na ko les moyens les moyens moo fi wax nañ leen jox ay moyens comme ni ñu koy joxee keneen man c'est tout ce que je te dis man je parle pas de Augustin ou tey bi ñu demee coupe du monde ñëw dañuy détecter le problème donc Aliou foofu noonu lu mu def dem jëli des nations yoo xamante ni dina yokk suñu niveau ñoo xam ne ñëpp ne ñoom ñoo ñu mën. Ah. tey Mamadou Diallo li muy soulever loolu noonu la équipe ci mel ni Japon Portugal. Brésil Iran ñoom ñoo teg tey jii ci àdduna bi. donc tey boo mënul tey natt sa bopp ak équipe yooyu noonu tey da ngay dem pour participer foofu la ñu toll ñaata place ñoom ñoo nekk Sénégal donc ça revient tey à évoquer problème bi ñu am ci basketball bi tey moom mooy la préparation. à chaque fois donc tey boo waajalul sa bopp am tey li nga xam ne moom mooy vision ci sa équipe ci sa faiblesse ak tey li nga xam ne mooy li la manqué par rapport ak tey le niveau mondial chaque fois boo demee ci tournoi tam mën nañu nekk fii demi-finale ba ilaa yow midi donc tey li ñu war a def moom mooy Bessao mu ngi fi Saly mu ngi fi nii ni ñuy jëlee tey cette petite catégorie là par rapport ak U17 wala leen ak leen ñu jël leen dugal leen regroupement def détection pour man war na ci biir Soccer parce que tey balaa ñoo wax Coupe d'Afrique ñun nañ fi njëkk a limal juróom ba ci juróom-ñaar jàpp juróom-ñett ci ay trophée hmm. donc faut dire que équipe la boo xam ne tam war nañ leen gën a mën a fulaal mais tamit toog tey ba janvier amagoo tey ay ay ay match de préparation tey Maroc li mu def moom mooy dem jëli Ngalla Sylla kooku bu bindee tey dañ koy jox li mu soxla hmm. pourquoi pas tey Mamadou Diallo war a mun a am lu ni mel donc Maître Augustin Senghor quels que soient les efforts qu'il fait aussi dañ koy war a wax na gën a yokk parce que aussi effort te équipe A la ñu wax donc équipe la boo xam ne tey ni ñuy solale ñoom Sadio Mané ñoom tam noonu lañ leen war a mën a xoolee tey jii donc je me dis que tey sur le plan de la préparation bu ñu leen gën a appuyer rek su boobaa mën nañ leen exiger dara mais tey bu ñu leen bàyyi ñu demee nii coupe du monde pour man fixer leen ay objectif tamit bon du ko jar daal. coach question de moyen la ak question d'infrastructure boo demee wax na ko léegi Casa Wydad bu Casablanca ak Espérance de Tunis gis nga seen stade seen terrain. ak hôtel bi ñu yore am na dëkk yoo xam ne équipe nationale su sax amuñu ko question de moyen la. le TP Mazembe dafa am. xoolal TP jet pour équipe joueurs bu ñuy voyager bu amul miracle ku jàngul du tari. Mhm. moyen mooy def yenn yi fi sport toll ci jamono bi doyen énuméré na ko fi léegi. Mhm. amuñu temps pour dem muy indi ñeneen ñi sali ñaata terrain fa nekk. BCEAO ñaata terrain fi nekk. ñu invité leen. nga jël booy yóbbu leen regroupement yor leen det mettre leen dans de bonnes condition non problème regroupement amul. benn centre euh, tubaab Dialaw mi ngi fi. Guéraw mi ngi fi. non je vais énumérer mooy. pour jël ay équipe yu sparring partenaire pour cette équipe là. il faut mettre les moyens Adja. d'accord ce sont les moyens. coach. waaw ah, moi que <laughs> mode opératoire bi benn sport co yëpp ça même cheminement bi la. heureusement que l'entraîneur il connaît maîtrise son domaine xam na lan la soxla maintenant lan mooy problème bi dañ ko war a mettre à la disposition parce que tey nit ki mënoo ko laaj résultat ba pare li jiitu résultat bi euh, mais joxoo ko ko. c'est pas possible c'est ça le problème. d'accord si je peux ajouter quelque chose. si euh, euh, lamb ji. si s'il Sénégal. a besoin de du partenaire de l'argent pour chercher pour jouer avec le Sénégal mm. vrai ou faux mm. alors il en a euh, reste six minutes il faut que ñu def nag euh, li nga xamante ne moom mooy fast track mais dugg ci li nga xamante ne moom mooy euh, lamb ji on vous rappelle que coupe du monde bi ñi ngi ci jëm au mois de janvier Euh, le 15 plutôt février du 15 au 25 février prochain 2024 alors euh, Greg ñu dugg nag ci làmb ji ba léegi dañuy teg suñu baaram ci préparation ñëw ci coow wala ñaari rencontre yi nga xamante ne Ama war na ko disputer dugalaale ci aussi blessure ñi nga xamante ne eh, ñoom ñooy euh, mbër yi jamono ji ci njeexitalu aussi saison 2022 2023 la ñu nekk ci sunu sport national waaw Madia mën nañ ko tënk nag ci benn moom mooy certificat médical donte tey jii g jàpp na nag benn bés ci weeru ngir ñu daal di amal bi le combat tey dafa mel ni yëf yi daal dara leeragu ci ndax nañu bëre wala déet loolu nag moom mooy coow li nga xam moom moo fi jot a lëmbee ñu teewlu jàngal bi see bëri dóoru réewu Sénégal fan la jëm ndax mënees nañu ko tuddee bëri dóor wala boog làmb bokkoon na ci laaj yi nga xamante ne ni amateurs yi samp nañu ko certificat médical fii certificat médical fële combat yu mag daal di rek suux ponkal yi wéy rek di tegle année blanche ci gaal gile bokk na ci sax combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé mi nga xamante ne jamono ji ci làmmiñ yi kott la daal di des ginnaaw ba ñu ko dàqande lu bëri rek CNG daal di fësal ne daañu ko bëre benn fan ci weeru octobre atum 2023 waaye rek diggante doomi Pikine ak doomi Fass bile ci càkkuteefu promoteur bile dafa mel ni rek déggoo du ca am jamono ji nga xam ne rek CNG jot na certificat bi fësal ne Gris Bordeaux wér na dal nay jàpp ab bés waaye rek mu mel ni ñetteelu ko tigre bu Fass njort dafa am rek ni moom moomee du ca sëgg bëre Gris Bordeaux sax ñu ci bëre di xam ne rek ne jamono ji dafa dal di rek bëgg bëre bile ko combat ci weeru décembre atum 2023 wala bokk weeru ko janvier lu ni mel la di fësal rek jamono ji loo xamante ne nii ab bëgg-bëggam la bu CNG mëneesu ta digg ñu njort rek ne jamono ji moom doomi fas bi dafa jàpp ne bés bi la arrangé wu ko benn yoon bu fekkent ni sax Abdou Bakhoum daal di manager bu Ama Baldé moom wuyu ji na CNG jamono ji ñu jàpp ne camp bu Fass teguñu fa seenu tànk bu ñu xaymaa lu ni mel yépp amateur yi sax jàpp ne jamono ji calcul def ca daal di am loole bokk na ci rek seetlu ga sax ñu daal di am benn fan ci boobe la ko tax a jóg bokk na ci rek taxaw seetlu ba xam ana fu combat Modou Lo Ama Baldé di mujjee ngir rekk mu daal di bëri ji ab combat royal lu ci mënti am rek. moom doomi fas yi moom moo ca mën a leeral la ndaxte moom moo xam yaramama waaye jamono ji laaj rek samp na tam jëm ci Ama Baldé Ama mi sax ci diiru juróomi at benn combat kott la daal di bëri ndax lu ni mel la mënees nañu ko tuddee làmb wala bokk ndax làmbu Sénégal nekkul di làmbatu rek ba xam fan lay taxaw bu fekkente ne nii rek lay daal di wëyee ndax mbër yi duñu sax wëri beneenu ko métier wala bokk ñu daal di rek yemale yëf yi ci lutte simple mu doon jàngatu Grégoire Samba Ngom Greg ma bàyyi la ak euh, coach Pape Moussa Diop. Euh, tey fi làmb toll dañu nekk di làmbatu laay wax parce que Ama Baldé ponkal bu mel ni moom juróomi at benn combat la ci bëri. Gris certificat médical de gauche à droite certificat de guérison CNG jàpp date ñu ne arrangé wu ñu ci bëri ñu ngi jàpp ne xëy na del calcul loolu noonu après dinaa ci ñëw mais tey boo xoolee Gris Bordeaux état bi mu nekk est tey kooku. amati na lu muy def ci làmb ndax kooku pareeti na am na yaramu mbër fi mu toll. Ah, am na yaramu mbër ba tey parce que retraité gul décroché gul ngi ci di entraîner. mu mhm. ngi respecté entraînement boo xoolee am na repère ba léegi làmb parce que toogul cinq ans ci cinq bëri na mais bu ñu fàtte ne sport individuel. Ama moo bëriwul pendant cinq ans. pendant cinq ans Ama Baldé mi ngi doon bëri bëri na fi deux à trois mhm. sport individuel dafa nekk lu complexe. parce que boo amee ñaari sujet wala ñaari adversaire yoo bëree te ñu doole bokkuñu façon bi ñuy bëre daf ci joué benn beneen aspect bi mooy dafa am aspect yu bari yu ko tënk physiquement mystiquement ak moralement bi nga war a indi bu fekkante ne ñu ngi seen li erreur bi mbëri di def yëpp li suma xarit Max di wax mbër du préparer dafay pare te gis nañ ne Sénégal quatre-vingt-dix pour cent des lutteurs balaa ñuy jàpp c'est après le pour pourquoi parce que moment de la préparation bi nga soxlaa sa muscle yi saignant muscle yi taxaw nekk en place da ngay bàyyi ba combat bi jege nga bëgg a entraîner ce qui booy jàpp day fekk mu passé da nga koy xool si jigéen bu wànnu lor ñëpp xam nañ ne bu defee juróom-ñeenti weer ak semaine bu xale bi nekkul macrosome si médecin yi def 10 mois dafay judd. plante bu amee une semaine xam nga nu mu war a toll quinze jours xam nga nu mu war a toll xam nga ni euh, euh, xaj bu ëmbee bu defee soixante huit jours deux mois huit jours dafa war a déporter bu porter mais ki nga xam ne day entraîner soxla muscle au mois de janvier mu bàyyi ba mois de décembre mu bëgg a entraîner mënul nekk février wala mars la muscle yi di ñor maanaam mooy indi blessure te mooy indi doo pare physiquement parce que munoo bàyyi ba am combat mois bi jot nga soo ko entraîner foofu la erreur bi nekk ce qui signifie que mbër yi waruñu bàyyi ba am combat di soog a entraîner da ngay xëy di entraîner préparer wu avant combat bu combat jotee nga alléger wala nga changer sa préparation mais toog defoo dara di lekk ba mu neex la làmb jot nga dem jëli combat gis nañ mbër yu bari di ko fi def dañuy bàyyi ba combat am ñu soog a commencer dem di entraîner te muscle bi amatul assiduité amatul habitude amatul endurance musculaire boobu pour nga dem entraîner pour préparer sa combat looluy indi blessure yu bëri mais dans ce cas figure kii dañ ko nar a jox ñaari combat yi tegle ci en un mois. bii le premier benn bi le cinq bii le cinq ci wàllu làmb bu mënee nekk du mbapat te aspect yi bokkul làmb yi dafa laaj communication dafa laaj préparation ci wàllu préparation boo duggee ci wàllu mystique nga tase mbër mbër yoo xamante ne ki ngay bi ngay bëree kii sëf bi mu la sëf dindiw ko nga bëgg ci teg beneen mais mais ci ci wàllu entraînement. mais ci wàllu entraînement est amaa que Ama Baldé mun na bëre le premier jóge ci bëre la cinq ak déjà ñaari mbër yoo xamante ne. profil yi profil mooy sujet yi ma la wax. mais est-ce que loolu mun na nekk. dina compliqué dina compliqué vu situation actuelle bi vu préparation bi mun na a am parce que fii bu fekkee dafa soxla masse musculaire pondérale. sec face à gris daa am masse bu muy soxla contre Modou Lo am na beneen aspect physique wala forme physique bu mu nar a indi ñoom ñaar bokkuñu est-ce que le temps lui permet bu doon ci trois mois mën na nekk lutte avec frappe bokkul ak mbapat mbapat mën ngay bëre tey ba quatre heures matin suba nga nopp lu ñëwaat bëriwaat mais lutte avec frappe c'est différent il faut que ñu waxtaan waxtaanaat xoolaat may leen ay délai ñoom ñëpp parce que quand tu veux travailler le muscle yu gën a profond pour nga am résultat bi nga bëgg miracle amul xam-xam rek moo am c'est sur six semaines mooy li ma la wax jigéen bu wane lor juróom-ñeenti weer la ñuy xaar doom. alors ci kaw xam nga Ama moom évacuer nga ko. Mhm. léegi nañu wax ci adversaire am d'abord Gris Bordeaux. Mhm. parce que Gris Bordeaux diggante bi mu déposé son certificat de guérison. Mhm. parce que aussi waa Fass tamit loolu la ñu wax est-ce que diggante bi mu déposé son certificat de guérison nous sommes au de juillet di dugg août. mu bugg a bëre octobre est-ce que le temps ngay jóge ci blessure war a observer peut-être un ou deux mois de pause wala reprendre say entraînement est-ce que moom en tant que sportif en tant que athlète mun na mun na ci bëre déjà au mois d'octobre est-ce que un convalescent peut compétir non ah, voilà mënu fi def préparation bu mu nekkee en convalescence jàppaat muscle di delluwaat à leur place physique bi mu apt mu allié physique allié musculairement ak euh, cardiovasculaire ak cardiomusculaire taxaw ni mu war a taxawee mu dem nga jékki nit ko jóge ci feebar rek nga jël ko ne da nga koy yóbbu mu compétir du ñu xaru ñoom it du ñu jël risque boobu il faut que mu pare mooy li ma la wax six semaines si ngay njëkk gis seen résultat yi tu amènes d'autres six semaines ça te fait trois mois minimum nga mën ne kii athlète de bu compétitif parce que la préparation dafa am ay fànn hivernal bi pendant ak bi nga nekkee ci compétition bi et c'est important nga mën a xam ban période la ak phase bi nga war a liggéey dafa mel ni nga jël li ñuy defee musculation un jour de foot wala un sport sportif de combattant bokkuñu parce que kii poste hivernal bi mën nga ko sëf lu diis nga koy tas mu def la transition bu doon athlète la day jóge ci training dem ci point bu doon footballeur la day jóge ci training dem ci godaas et ainsi de suite transition boobu dafa am liggéey bu mu laaj mais munoo tëb premier match moo tax athlétisme ñi ñuy tuddee les premières compétitions les bâtards bu ñuy soog a ubbi saison bi boo xoolee joueurs yi balaa ñuy jàpp tànk sax wala am benn rythme bi début championnat bi du bokk ak bu ñu demee am na équipe yu mag yu mel ni Real Madrid ak yeneen équipe yi bu ñuy dem ci deuxième retour yi ngay gis ne seen fraîcheur physique si lay gën a ñëw mhm. bu ñu pompé équipe du taxaw parce que dañu am régénération boobu dañu jot seen rythme boobu pour mën a jouer loolu mais bu fekkente ne sport de combat la tant que li ñuy wax togg bi ñorul wala muscle bi jotul li mu war a jot comme ku nekk ci convalescence bu fa naree am combat mën na am ay blessures mën na ko indi sax ay gàllankoor yu gën a graaw la. est-ce mais CNG ñoo war a delluwaat. defal ko fi contrat bi ak fañ ko war a bëri ji. mais il faut yokkul blessure bu bëri parce que signé un contrat en janvier deux mille vingt deux war ko bëri en mars deux mille vingt trois. dafa gudd en ce moment là équipe technique bi ñoom ñooy changé programmation bi. tu peux pas faire trois séances pendant six mois. mënul nekk mais mais mais xaaral rek très très rapidement papa papa Moussa ñëw ci deux ou trois questions après waaw. est-ce que euh, CNG amul directeur technique bu nekk ci au niveau de la lutte. bu war a nekk en tant que consultant sur les programmations. des combats des combats. Ah, parce que yenn données yi moom moo koy gën a maîtriser que. Euh, les membres de. ou bien qu'on sollicite aussi la commission médicale ñu mën a xam ban temps de repos. la euh, ak planification yi. avant mm. les combats. bi euh, boobu ngay wax pour que mën a dugaat ci beneen combat loolu directeur technique bi moom moo habilité compétence am. Mm-hmm. moo ci màcc. alors euh, Ama dama dégg. Mm-hmm. ñu ne léegi même il s'entraîne sous le chaud soleil xam nga cinq ans ngi nii bëriwul arène nationale. damay dégg sax yenn mbër yi ñu ne seen premier combat arène nationale ñu ne dañu perdre repère complètement géew bi beneen géew la écosystème bi tamit dafa changé du benn du benn du benn yoon du ñaari mbër yoo dégg ñu soog a bëre seen premier combat fële ci arène national dañuy am problème boobu maintenant moom mu war a dellu si l'idéal ça aurait été entre les deux adversaires kan moo kan moo gënoon pour pour pour yow pour Ama Baldé moment bi ça dépend ci ci xam nga problème business la parce que Luc Nicolaï day bëgg mook Modou ñoom ñu bëree mook Modou Lo moo leen gën a arrangé parce que mooy titre roi des arènes bi. te moom sax par rapport ak prestige bi. ak préparation bi doon woon mu bëri ak Modou. Euh, euh, y a de fortes chances hein mun na mun na mën na jël couronne de couronne roi des arènes bi. waaw bu fekkente ne aussi mën na am revers mën nga dem ci Gris Bordeaux am fa revers balaa nga ñëwaat fii day compliqué. wala nga jugee fii dem fële yow en tant que reporter sax boo xoolee man mi vivre naa ko Gré war na ko vivre waxuma la sax nga nekk mbër stade moo mel noonu ñii pratiquer nañ gis nga boo duggee ci enceinte di war a jouer surtout lu mel ni arène nationale day mel ni dangay ngay sentir lourdeur bi nekk ci tribune bi di la tiim wala nit yi nit ñi yuuxoo parce que foofu foofu la coaching en développement personnel ak ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu bopp di la téye di la préparer balaa ngay dem surtout sport de combat beneen domaine la dafa doy waar day diis ci athlète bi parce que lu plus de million millions et des de bët jàkkaarloog yow di la xool te préparé woo loolu beneen aspect bi mooy moom pour loolu mën a am il faut que mu am temps record minimum deux à trois mois un mois baaxul nañ ko teg minimum huit semaines à douze semaine mu mën a am préparation récupérer dem jël beneen combat donc fin décembre mooy mooy mooy li mooy li mooy li normal. li ma la ciy tegal mooy problème bu njëkk bi ñu am arène nationale mooy mii nañu géew bâche lañ doon lal def ci suuf. Mhm. arène tànk yi foo mu suul. il am na suuf. waaw waaye sëñ xam naa li ma la boo doxee doxaat da ngay bàyyi. donc li tax tey mbëru mbapat tey ñu ci mel ni ñoom franc yëpp déplacement bi ñu mën a am. tey ñi nga xam ne ñoom ñooy mbëru arène bi dëgg bu ñu demee arène nationale dañuy sonn bëre bi du gaaw ni mu war a gaawe tey bu ñu defee benn round ñaar dañ koy sant ci seen i tànk. ce qui fait que doyen woo bu ñu daan joué arab yi lan la ñuy def. danga war a jouer ñoom yow gazon nga préparé. ñu dem yóbbu la terrain synthétique. jox la ay jox nga indi godaas. ñu sol ay tout terrain taxaw. di la dóor doo bouger. li nga doon wax cadre bi daf ci am solo. école grec parce que foofu nga tegoon sa sa sa sa loxo dafa dafa dafa am solo. par rapport ak athlète parce que aussi nañu waxante dëgg mais promoteurs yi c'est vrai ay investisseurs lañ mais aussi bu ñu xoolee tamit bien-être athlète bi parce que avant mu ñëw nekk en forme bu baax Modou Lo ñëw nekk en forme li li gars yi di wax euh, kurpañ yi dàqante parce que nag la lutte avec frappe la nañ te dégg ñu bëri pendant dix dix minutes wala quinze minutes mais mais mais loolu beneen affaire la mu ñëwaat nekkat en forme bëriwaat ak ak Gris Bordeaux mais mais mais loolu aussi dara dàq ko ou normalement ci at bi mën nañ leen bàyyi mu doon six mois six mois su fekkee bëgg nañ lu normal sante bi ñëw ñu am mbëri ñu soxla. nekk en forme nekk en forme bu doon def ko bëri janvier. gën gaa néew nga yóbbu ko juin wala bu defee juin nga yóbbu ko décembre pour nga mën a am athlète bu pare. Ah. waaw très rapidement ñu tëj fii boxe. waaw doo doo doo ay six mois pendant des années ngay préparer benn combat de boxe. dëgg loolu dëgg. pourquoi fii ñu bëgg yàkkamti dóorante dafa metti est-ce que comme dóorante dafa metti yaa ngi dégg ñu door la nga miir dafa metti kon je pense que ni ama lii ñu ko bëgg def loolu c'est pas waaw na na nit la est-ce que ah mbët day pare mu bu bëree tey mu defaat un an après mu soog a ñëwaat préparé wu bëre parce que liy génn ci moom dafay bari parce que ñi muy am duñu ay nit ñu ndaw de waaw entraîné ci naaj cest am na lu ëpp ci moom lu mu bëgg a dagg très bien ce qui veut dire mm-hmm. tey dafa wéeru woon man ci li ma koy jàngate mm-hmm. dafa wéeru woon xaar ba xaar yi xam ne sës na mu am lu mu war a dindi mm-hmm. beneen aspect bi ñu sonal suñu mbër yi moom mooy ils sont pas entourés de professionnels li ñuy lekk calculer wuñu ko seen temps de récupération demewul noonu athlète war nga mën a préparer toute une saison toog mais tey boo signé sa contrat dem toog ci mayga bi bu ngoonee nga jàpp sa njaambur entraîné 18 heures toog yób bopp koñ beeg booy ñuy ataaya donc tey sama me dis yi am ci làmb ji dafa bëri deuxième bi mooy fi ma doon ñëw moom mooy mbër mii mii ñu géew côté boobu noonu li mu leen sonal arène nationale moom mooy carte bi nga daan am tey ci biir Demba Diop wala tey ci biir loo Sédar Senghor arène nationale c'est différent suuf si ci biir géew ga la boo fa demul doo xam ne mu mel li la wër yëpp dër la ñaareel bi booy tuus ci dër ngay tuus supporters yëpp jege bi ñu la jege ak la nga daan am fale du benn donc tey préparation bi nga xam ne tey war nga ko am ci biir na combat signé sa contrat xaar un an war ko bëre defuloo tey préparation bi war maanaam sa misul tàggatoo ko ba fa nga koy yegg je bëgg a jël yëpp wekk ko ci mystique aussi làmb dafa am ay réalité mystique tey bu ngeen bëkkantee deux deux minutes pare na ci làmb ñu commencé tekki kii mais mais mais aussi boobu tamit bu ñu fàttee euh, pour sànq mi ngi wax waxu waxu sëf mais mais mais le boobu noonu le soleil bi muy entraîné pour pour laan la ça dépend soleil de soleil waaw bu fekkee ne dafa bëgg def séchage wala mu def la transformation mën nga jël cent kilos ñaari cent kilo teg leen. parce que moom aussi dafa jóge ci blessure loolu loolu aussi nga teg ñaari cent kilos mais du ñu bokk. cent kilos coton ak cent kilos suuf yëpp cent kilos la. mais matière yi bokk te soleil am na vitamine bu muy def ci nit benn. alors mooy nit ñi nga xam ne dina sa gis nga football xam nga mën nga football tour ci biir terrain pendant mhm. quatre-vingt-dix mhm. mais boo tegee série penalty yi nit ñi di la xool dafay mel ni. non beneen charge beneen charge mooy nekk mooy loolu nga doon wax lànk si mbëri fi ma doon terminer mooy mhm. pour mbëri di wax naan je fais trois séances par semaine trois séances ku koy def ba romb huit semaines say mbokk bu jógul ci yow bu yàggee nga dog trois séances dafa am nu mu àndal gré wax na ko forcément war nañ xam li ngay lekk lan la huit heures de sommeil yi da nga koy respecter il faut pas oublier que le muscle il prend au repos c'est pas pendant l'entraînement te booy noppalu. noppalu bi si la muscle bi di jël. d'accord ci lay fay pendant entraînement bi day éclore day am explosion. pour que li tax ñu naan la jëlal protéine pour mu réparer les tissus adipo suude li yàqu ci biir moo tax nit bu entraîné wala mu def yenn effort soo laalee danaan ay yàq parce que muscle bi moo dagg ci biir protéine moo koy remplacer mais naturel su dee acide amine la c'est pour permettre nga am récupération bu gaaw bu dee créatine la pour te de la force demain nga def ko. moo tax bi ñu gisee LeBron James bu la rombee ñu naan day ni fusée moo njëkk jënd machine bi gën a cher pour la régénération pour récupération rapide da nga joué match basket léegi nopp lu mu jox la comme que récupérer une semaine suba soo ñëwee da ngay bees mais lépp loo gis am na ci ay effets secondaires am na lu muy joué doomu adama bi. donc mbëri bu dee da nga bëgg préparer un bon combat wala athlète kuy combattant ci biir six semaines mën nga am trois séances mais lu munoo di entraîner pare di dox fii ba Koungheul pour ut garab. wala jëm Tataguine. te am na ñoo xam ne ñooy dem mais munoo nekk mbër nekk sa entraîneur di ut looy lekk ci mairie cere bi après nga dem ba ba ba fee na ma gars yi baal fi ñuy ndekkee fajar gi ci Seras. Ah, wala dem bant ya ah. bëgg dem uti nag bëgg def sarax bëgg récupérer c'est inadmissible il faut que ñu ut ku leen di doxal yenn yi yow xam nga lan la desante ah. la récupération entraînement mystiquement am na koy dox yeneen yi am na ñeneen ak ñeneen parce que munoo dem ba. gagné nga déglu aussi professionnel yi la. yi lay wax buñ la defal lii nga def li buñ la bàyyi. waaw léegi mbër bu dem ba commencé gagné cinquante millions dugal ci benn business am am fa ay action bëgg xëy toog ci parking bi jaay oto di fa nelaw wala bëgg dem ci boutique bi. ba pare léegi jaay xar aussi. alors euh, doy na waay. <laughs> très rapidement en deux trois minutes penda rek ko parce que xaabaabal nañ. Euh, ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy sànq maa ngi koy wax sport interscolaire avec euh, ce tournoi parrainé par le ministre de l'éducation nationale euh, ñu amal ko nag fële nga xamante ne Thiès en présence aussi d'autres responsables ak aussi ay kilifa Euh, mu nekkoon nag euh, benn match boo xamante ne bu am solo mouvement vie moo ko moo ko organisé ah, vision intégration Adja noonu la ñu ko duppee muy nag une finale boo xam ne mu ngi booloon rek ASC Cité Lamine ak ASC Cité euh, Concorde ah, bokk ci li nga xamante rek Babou Ndour moo ñu koy dégtal. amaloon nañu finalu tournoi vision intégrité engagement te stade bi ñu Maniang Soumaré moo dalaloon xew bi doon dox si ñaari ASC yi gën a mag mu di ASC Cité Lamine ak ASC Concorde. voilà le ministre Cheikh Oumar Anne mooy nuyu ñi nga xamante ni mooy les joueurs voilà. Cheikh Oumar Anne nekkoon parrain final bi moom daal mu ngi àndoon ak délégation bu rëy rëy bokk na ci kii di ministre Abdoulaye Sow ministre Pape Amadou Ndiaye ministre biram fay ak ki nga xamante ne moo di Farba ak yenn si ay directeur général. temps ñu ngi joué Birame Faye mooy bi nii. si <laughs> biir terrain bi ndëkk ñaari équipe yëpp ku nekk mu ngi wane boppam. pour remporter li nga xamante ne moo di ndam li waaye si première mi bi kenn mayul sa morom dara waaye ba mu demee si 43e minute bi ci la équipe bi di ASC Concorde lakk caax yi. si noonu lañ ko téye ba si mi-temps bi waaye bu ñu dellusee si deuxième mi bi waa ASC Cité Lamine def nañ seen kéemtalaay kàttan pour égaliser. waaye dañ doon daj ci défense boo xamante ne dañ taxaw temm ne duñu encaissé but noonu daal lañ ko téye ba match bi jeex mu doon 1-0 mu nekkoon match boo xamante ne moo joxe coup d'envoi nawetaan fii ci Thiès ba tax na kii di parrain bi jënd na ay jeu de yu bëree bëri jox ko ASC yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi ni mel. bi ñu teewaloon foofu ci tournoi bi nga xamante ni mouvement bi ñoo ko organisé euh, ñu tàllal nag seen micro ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Oumar Anne euh, ministre de l'éducation nationale mais aussi parrain de ce tamit ñëwaat na rek jaar ci porte bi nga xam ne ak solos tournoi bi nga xam ne jot na ko am ak lépp loo xam ne tam moom lañ ci mbugat. Euh, Ahmed Ahmed Diouf qui natif de la ville comme moi du reste qui m'a fait l'honneur de me parrainer un tournoi Euh, de football euh, qui regroupait une vingtaine d'équipes euh, de, de, Thiès. Alors j'en ai profité aussi pour venir l'accompagner parce que c'est un jeune dynamique qui est très dynamique et qui se bat auprès des populations. Donc moi, j'ai constaté depuis un certain bout de temps son engagement sur des sur toutes les questions sociales. Alors, euh, il me revenait donc euh, en tant que grand frère de l'accompagner, de le soutenir. D'où notre présence aujourd'hui. Je suis accompagné de, de plusieurs collègues, euh, de quelques responsables aussi. Et cela témoigne qu'ils euh, ils ont vu en lui quelqu'un qui se bat pour les populations et ils sont venus l'accompagner. Voilà, c'était la réaction de Cheikh Oumar Anne, moo doon parrain tournoi bi. ñu amaloon fële ci stade Maniang Soumaré dañ fay jógee fële ci Thiès dem ca Kolda foofa nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ENO yi maanaam gouvernement bi dafa génne euh, ci li nga xamante ne moom mooy université maanaam UVS ñu amal nag ay ay ENO euh, ci région wala capital régionale yi nekk fi nga xamante ne moom mooy Sénégal douze yi nag ñoom ñoo daje woon fële ca euh, Kolda amal na kàpp euh, tournoi c'est moom mooy bi nga xamante rek moom moo mujjee gàddu li mel lépp ci teewaay Bekay Cissé. ñu placé ko si signe communion ak socialisation si diggante ay étudiants. tournoi interuniversitaire bu ñu jagleel recteur université numérique Cheikh Hamidou Kane jot nañ ko amal fii ci diwaanu Kolda ci ab final bi nga xam ni équipe bu ci nekk wane na xar kanamam espace numérique bu njuum moo mujj jël ndam li ci kanamu seeni naataango bu Bignona ci séance su tiro bi bi ginnaaw bu ñu niwlee ci temps réglementaire bi si fàttali fukki équipe ak juróom-ñaar ñoo tàmbali woon bile tournoi mu nekk lu parrain bi rafetlu bu baax a baax chaque année dañuy organiser li ñuy wax coupe du recteur euh, muy benn compétition boo xam ne dañuy permettre euh, étudiants yi jóge ci espace numérique ouvert yi ñu am yëpp ñu daje fenn euh, pour am ay compétitions sportive donc football handball mais aussi des compétition culturelles et aussi am ay activités de service à la communauté liñ ci jublu mooy di leen permettre ñu xamante parce que comme modèle bi am dañoo xaw a tasaaroo Sénégal en même temps aussi enseignement distance la donc amuñu toujours occasion di daje donc au moins benn yoon ci année bi pendant quatre jours ñu daje fenn. mbégte bi daal di law ba ñi nga xam ne ñoo yor ndombol tànk ci diwaanu fula du ren colda la woon ñu ngi leen di sant ci loolu parce que xam nga ni ñoom seen université ci Sénégal yëpp la nekk donc le fait que ñu daje loolu dafay permettre étudiants yi ñu xamante te comme ni ko recteur waxee aussi ñu def e peu de tourisme xam Sénégal loolu je pense que c'est extrêmement important. Euh, bu loolu weesoo vraiment félicité wu di di ci ci lii am fii ci Kolda gis nañu par exemple handball gis nañu football gis nañu service à la communauté maanaam joxe nañu ay def nañu ay don de sang xam ne xam gañ nañ xamante ak Kolda yi donc leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ci diiru ñeenti fan bëriwoon na ay activités yu ñu fa amal ñu mën cee lim ab randonnée pédestre ak finalu handball ci wàllu jigéen ñi. lépp nag daal jeex ci ay wëy ak i fecc ci gradin wu stade régional bu Kolda voilà c'était notre correspondant à Kolda Bekay Cissé ñu koy jaajëfal il était avec les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ñu leen di jaajëfal d'ailleurs loolu sax tey moomoon naa képp seen rendez bi ñuy jaajëfal suñu invité coach merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation kaddu gu mujj bi. waaw ma bu ñu perte espoir suñu équipe bi euh, entraîneur bi yóbbu équipe bi entraîneur bu am expérience la gagné na deux coupes d'Afrique a gagné deux coupes d'Afrique donc euh, min na compétition bi. Mm-hmm. Euh, équipe bi peut-être ñu ñaan mu mu mu mu mu jël rythme ci match yi di ñëw donc. loolu daal la bëgg ñu def l'unité derrière cette équipe là euh, jouer ñoo chance jusqu'au bout après li ci am nag ñu doog a tirer les conclu conclusions mais bu ñu jël benn conclusion hâtive euh, équipe suñu équipe la euh, mi ngi traverser des difficultés peine à trouver ses ses marques donc euh, peut-être ci euh, deuxième phase bi Égypte la ñu dajeel c'est à notre portée war nañ ko mën a gagner donc euh, man daal appel boobu laa doon lancé à tout le monde euh, vraiment ñu ñu rafet njort daal man daal vraiment sama njort rafet na bu équipe bi jouer autrement rek pour man euh, dinañ gis beneen équipe nationale ci ci ci phase bi di ñëw. boobu et être bu ñu jàllee ci barrage yi quart de finale ñu dajee Cameroun et puis révolte lay nekk mm. euh, fi nga xamante ne moom mooy quart de finale yi euh, surtout ça je voulais dire revanche lay nekk pour pour ñoom pourquoi pas ñu jàll demi-finale euh, en tout cas nañu sonné li nga xamante ne moom mooy mobilisation bi tous derrière les lions n'est-ce pas Lamine ak kàddu bu mujj gi waaw loolu moo war tous derrière les lions comme ni ñu ko waxee sànq rek mën nga commencer ndànk ah, ba pare dem bu baax ci final bi surtout que euh, match après ku ñun qualification la mun nañu jëngu gagné ah boobaa euh, Sénégal day neex rek mais nañ leen ñaanal ñu continuer dem di la gërëm yow parce que sa invitation daf may soxal toujours même si euh, da ma yeb waaw mais du wala di di dama doon def anniversaire nag le 24 passé c'était mon anniversaire dafa am ñoo xam dama leen di sant di leen juillet. juillet bii passé mooy euh, le panel de Assane Kara bi nga xam ne Yelli Fall moo ko def dañ ma. dalal c'est un waaw c'est un dañ ma dalal. sargal ma. Ah defal ma loo xam ne franchement benn panel mosuma ko defal. maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp ñoom grand Adolphe ñoom Aline Bey xam nga ñoom Tra ñoom ñëpp maa ngi leen bu ma li ku lim juum. daal administrateur koy ñu koy nuyu moom kii on en Norvège xam nga mm-hmm. maa ngi leen di sant di leen gërëm ba pare nag di jaalee Amara Traoré et la Linguère de Saint-Louis mm-hmm. ñoom ñi nga xam ni seen jour euh, dafa génn àdduna tey ah, dafa doon dem Espagne comme ñenn ñi rek ba perte la vie mm-hmm. ah, di ñaan di jaalee famille bi di ñaan wala vraiment yàlla xare ko àjjana jërë di jërëjële felteel ba kii ni ñu koy wax de l'international <laughs> coach merci et félicitations pour la finale je, je n'y manquerai pas Pape Pape tu es très connu on m'envoie ici des messages naan ma c'est pas coach Pape Moussa ça <laughs> merci beaucoup hein doo ko nuyu. et un gros bisou à Bibi ma merci beaucoup loolu mooy daaneel bi grec kàddu gu mujj gi. waa jaa mbégte lay doon nag mais tey nag euh, comme wàllu làmb lañ doon waxtaanee damay ziar sama mbokk TV TV yu bëri. Mm-hmm. parce que daa am fu ñu jaar. Mm-hmm. sama xel day dem ci Lamine parce que ci téléphone la commencé ba tey. mën naa ne lutte simple bu ñu koy suivre tey moom mooy kii ma duppee tey le maire de la lutte mooy la chaîne leader Lamine TV donc c'est quelqu'un boo xamante ne nii il est parti de ba tey mu ngi tax lutte simple tey ñu koy seetaan tey ba ci bi ci réew mm-hmm. donc tey sama mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo génn Sénégal dem Espagne mënatuñoo dugg ci biir géew yi tey ci Lamine la ñuy seetaane donc ma koy ziar bu baax a baax di ko wax ci kaw ci kanam. moom tout le temps il fait la la lutte simple. daanan moom moom moo may waaja bindal livre daal moo may waaja bindal livre parce que neen xam man. man uh-huh. accompagnant laa woon. waaw donc loolu la ñuy wax si Kambay ci séeréer. donc nee na ma comme man ci loolu laa jógee doon journaliste donc livre boobu moom moo ko war a bind. d'accord may xaar <laughs> merci beaucoup merci beaucoup Lamine pour pour vous dire que mun nga passionné wala nga pratiquer sport sax mais du terrain nga continuer li nga xamante ne moom mooy say études et nous en tant que journaliste sportif on a on a on a cette chance là c'est-à-dire am na ci ci ñun comme man a keneen ak keneen ñoo xam ne dañu pratiquer en poursuivant leurs études on a dañu continuer li nga xamante ne moom mooy suñu passion moo tax quand vous quand vous nous voyez sur les plateaux on sourit tout temps parce li ñuy wax dañ koy dañ koy dund ko kàddu gu mujj gi kàddu gu mujj mu dul bu dul bu mujj comme ni nga koy waxee tàggoo bu dul tàggoo la di am contentement ak mbégte ci faveur bi nga may defal à chaque fois may bokk ak éminent yu mel nii parce que ñii li may li li Séga Sakho di wax Séga pas Séga saako avant sur le jaxal ne bu leen bàyyi ba ma dem ngeen di ma soog a jox jox leen ma léegi te dëgg la ñii dañ leen war a sargal dañu leen war a tatagal parce que dañu def lu rëy représenté Sénégal hmm? ñoo xamante ne vraiment on doit beaucoup pour ñoom nit ñi am reconnaissance boobu envers ñoom étan vivant may am mbégte bu baax di partager ak euh, l'éminent monsieur Diouf yow it di di la di la màggal di la jox sa wàccuwaay sa su ne plaisir la ak Grégoire ak ñoom Babou ak ñëpp di nuyuwaale tamit sama sœur Penda moom nga xam ne yàgg na ñu ne moom voilà la réalisatrice ak képp ku nga xam ne yaa ñi seetaan di am pensée pieuse ñi nga xam ne way dawlu ajaa ci ñun lañ bokkoon yal leen borom bi yërëm xar leen àjjana jégal leen seen bakkaar ñi ci hôpitaux yi ak ñi feebar borom bi defal leen ci chifaaw ñi ci prison yi ak képp ku nekk ci xat-xat na la borom bi génnee parce que xam nañ ne la santé et la liberté elles pas de prix yal na ko yàlla defal kulluhum yàlla defal ñu jàmm yàlla may ñu dal may ñu bëggante defal ñu la euh, concurrence saine pas concurrence malsaine mm-hmm. ñu vivre ko ba pare defal ñu loo xamante ne jàmm day sax Sénégal ak wërngal àdduna bi yëpp. on a besoin merci beaucoup. Nafi mi ngi lay nuyu moom mooy la coordonnatrice ah, de cette de cette émission moom mooy suivre bu amee rëq-rëq wala quoi moom mooy moom mooy envoyé message dina mi ngi lay nuyu bu baax. maa ngi koy fay <laughs> merci beaucoup euh, à tous gis nañ message yi tou tout. Euh, jërëjëf ci équipe technique bi Penda ci réalisation bi Pape ci wàllu son bi grand merci à Djibi ñoom dañu bokk ci desk sport bi toute la rédaction donc on vous donne rendez-vous dimanche prochain incha allah même heure même chaîne toujours avec le même plaisir jërë ngeen jëf demain retrouver Aïcha dans votre magazine Allô Sénégal moom moo leen di accompagner du lundi au vendredi de 7h à 10h